waxtaan yu am solo ndax ku ne pencum xam-xam wax nga lépp ku ne wax nga Serigne Touba wax nga maam Cheikh Raw waaye ñu fas yéenee dikk itam alhamdulilah salaatu wasalaam ala ashrafil mursalin sadid lisaani nawir janaani safi amaani wasid baraayi fas yéenee dikk ak yéen fii ci Bichri TV di fi def ay jotaay yoo xamante ne jotaayu xam-xam lay doon di émission bu am solo boo xamante ne ñu ngi koy waajal fas koo yéenee tàmbali muy am talaata bu jot fii ci Bichri TV à partir de vingt et une jàpp vingt deux heures ngeen fas cee yéene ànd ak nag seen mbokk taal di Yaxya ñu fas cee yéene def nag ay jotaayu waxtaan yu am solo ndax ku ne péncum xam-xam wax nga lépp ku ne xam-xam wax nga Serigne Touba wax nga maam Cheikh Raw Fall waaye ñu fas yéene dikk itam def ci ay yaatal ay jotaay yu am solo ci njàngaleeg Cheikhul Khadim rawatina njàngaleeg maam Cheikh Ibrahima Fall jotaay wi nag bu ko kenn wuute ndax ku ne xam-xam wax nga yoonu murit kon nag bu ko defee ñun ñëpp ñu ànd waajandoo ko muy am fii ci Bichri TV. ngeen ànd ceeg seen mbokku taalibe Yaxya mu sëñ Abdou Samad laa ilaaha alhamdulilahi salaatu wasalaam ala ashrafil mursalin sayidina maolana muhammadin al amin wa ala ali wa sahbi zawi ridwan wa tamkin sadid lisaani nawir janaani safi amaani wazid baraay barki borom Touba dooley maam Cheikh Ibrahima Fall ndimbalug sëñ Abdou Samane Mbacke moom sëñ ñu ngi sant yàlla bu baax di julliwaat ci yonantam sallallahu alayhi wa di dellu yeesalaat suñu njébbal ak suñu jaayante ci cheikhul xadim jaaree ko suñu bunt di suñu wasila ci yoon wi di cheikh Abdou Samane Mbacke di ko ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak wër di ñaan saaburam yàggal fi cheikh Mouhamadul Muntaha te mu ànd ak wër moom mu fi toog toogaayu cheikhul xadim te ma tee ko sëkk di ko ñaanal sëñ Moustapha Fall moom sëñ moo Modou Mbenda mi fi toog toogaayuk maam Cheikh Ibrahima Fall te matee ko sëkk yàlla saa borom doole ko fay yàggal te mànd ak wër seen yéene ci toolu lislaam rawatina ci liggéeyu Cheikhul Khadim yàlla defal leen ci lu kaweek njot te ñu ànd kook ñoom ñaanal mbooleem Cheikhu Serigne Touba yi fu seen njaboot mën a nekk te ne ci toolug lislaam rek yàlla saa defal leen ci lu kaweek njot te ñu ànd kook mbokk taalibe yi ñu ko sekkal su ko defee di siyaare ñëpp ñi nga xamante ne ñu ngi teelu télévision Mafatihul Bichri la télévision islamique au service de Khadim Rassoul rawatina jotaay bu mag bii di pencum xam-xam di am quinzaine bu nekk tey nag talaata ji ñu am mbégte dalalaat fi suñu magum taalibe suñu jëwriñ njaase fas yéene sekk ak moom nag jotaay woo xamante ne dañ ciy waxtaanee buntu yoon bi waaye waxtaanee ci yoon bi te mooy maam Cheikh Ibrahima Fall làmp waaye nag fas koo yéenee waxtaanee ci wet wi nga xamante ne néewaana lu ci borom xam-xam yi di xuus ndax ñu ci bari daanaka saayu saayiru Cheikh Ibrahima Fall rek lañ xam melo ak euh, njañ yaak euh, bëgg baak doxin wi ci kaw waaye nag xuus ci biir ay mbiram daanaka ñu bari duñ koy faral di def ndax Cheikh Ibrahima dafa nekkut lu ñuy jàngee ci kayit branchement la boo xam ne kuñ ci jokkul ku ne rek amaana yëg-yëg bi ci jaam war a am ba mën cee leeral doo ko am su ko defee nag tey ñu bëgg cee xuus indi ci ay yaatal di ñaan nag saa borom defal ñu ci kàttan ak tawféex ba liñ ci yéene lépp mu mate du ma xaawaabal damay bàyyi jëwruñ néew su ko defee ñu soog a tàbbi si jotaay bi incha allah auzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim allahuma salli ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa xadimihi ñoo ngi nuyu mbokk auditeurs yëpp di nuyu mbokk jullit yëpp eh, di nuyu sunu wasila Cheikh Moussa Touré di wuyu nuyu sunu xalif général sëñ Alioune Cissé di nuyu xalif général de Mourides xalif général de Baye di nuyu mboolem kuy kilifa diine ci réew mi di nuyu mbokku jullit yeeg mbokku dëkkandoo yeeg mbokku àdduna bi yëpp ak diaspora bi yëpp kenn ku ci nekk ñu ngi lay nuyu eh, di la jaajëfal bu baax di nuyu waa rajo bi. ak boroom rajo bi di la nuyu yow mi yeeyaa di nuyu suma soxna ñoo ngi nuyu ñëpp daal ak suma njaboot tax yëpp di nuyu waa maslakul xulaa bu wér ñu ngi siyaar bu wér day sant day gërëm di ñaan yàlla rek mu téyel ñu sunu làmmiñ euh, téyel ñu sunu xel ak sunu xol ba lépp loo xamante ne ñu ngi ko fi wax rek mu dëppoo ak alxuraan ak sunna ak euh, jëfi góor yàlla yi ñoo ngi siyaar bu wér day sant tey gërëm mhm. bu ko defee ñu ko junjee sànq ci biir waxtaan wi rek ci ñuy nuyoo maa ngi doon leeral ne tey dañoo fas yéene waxtaanee maam Cheikh Ibrahima Fall ndax bu ngeen xoolee suñu jotaay yi jiitu euh, dafa am ci yuñ duggoon bi ci jiitu waxtaan nañ ci taw tawhid dugg ci ay bunt ñaareel bi ñu waxtaan ci actualité Euh, parce que boo xoolee politique bi moo lëmbe woon euh, jamono jooju ci ginnaaw tey jii nag ñu fas yéenee waxtaanee yoon wi ndax buñ ne waxtaanee yoon wi rek mooy waxtaanee maam Cheikh Ibrahima Fall ndax mooy yoon wi mooy buntu bi te ab murit la tax ñu naan ko ab murit loolu nduru maam Cheikh Ibrahima Fall aw doxin la ndax mooy ab murit ndax melokaan wi nga xamante ne ci la ñuy natt ab murit ba mën koo peese xam ne kiikat kat mat na sëkk apt na loolu mooy maam Cheikh Ibrahima Fall ci saar ak ci baatin nag waaye nag dañ ne lépp loo gis mu feeñ rek nëbbu na maanaam lu zaayiru baatinu na lu baatinu saayiru na te Cheikh Ibrahima Fall dafa am ñaari phase benn wet wi tubaab di ko woowee phase bi nga xamante ne aspect exotérique la di loo xamante ne mën nañ ko làmb daj ko mën koo jàngale jaamu yàlla yi mën koo gis am beneen wet woo xamante ne wetam boobu aspect ésotérique la di lu baatinu loo xamante ne amaana yàlla saa borom mooy namal jaam ak ndimbal rek tàbbal ko ca loolu nag dafa toll jamono foo xamante ne dafa dem ba jaam ñu bari dañ koo réere ñenn ñi dañ koo ñàkk xam ndax olof day léeb naan lu juddoo ci biir teen day yaakaar ne asamaan si ci pind ma lay am ndax tey ñu bari euh, maanaam ni ñuy xoolee ak Baay Faal ak fi ñu koy yóbbu ak fañ foog ne fa la nekk daanaka du ko te nag day baax jotaay yu mel nii ñu ciy leeral loolu ba jaamu yàlla yi mën cee gindi ko bu baax a baax kon nag balaa ñu xuus ci biir jotaay bi fi ñuy njëkk a tàmbalee ci kaw mooy laal wetug zaahir gi ndax dañ ne ab baay faal tur la te lépp loo gis mu am tur rek day am jëmm te lu am jëmm am na aw melo kon nag bu ñu nee tur wi di ab baay faal xel yëpp day dellu ci maam Cheikh Ibrahima Fall mi nga xamante ne mooy murit bu mag ba ni ko sëñ Basiiru tuddee waaye itam amoon na aw melo yi nga xamante ne looloo nekkoon melokaanuk saayir bi ko doomu aadama yi daan gisee nit ñi di ko roy ci loolu tey jëwriñ Ndiassé melokaan woowu balaa ñoo dugg ci baatinu yëf yi ñu taxaw ci saayar si melokaan woowee li ci demee ni ay njaxas ak yooyu melo nga xamante ne tey daanaka ñu bari ñu ngi koy roy maam Cheikh Ibrahima Fall ay guddali karaw def ay njañ ak yooyu ana tey lan nga ci mën a indil euh, mbokk taalibe yi nga xamante ne tey ñu ngi teelu jotaay bii di péncum xam-xam bon sant yàlla alhamdulilah euh, ci wàllu saayir bi saayiru Cheikh Ibra ci wàllu laxasaay yi daanaka ñun na philosophiquement li nga xamante ni moom lañ ci gis muy jàngale bi nga xamante ni Cheikh Fall ngi ko ci doon jàngale boo xoolee njaxas dafa fekk mu nekk ay morceau yu bari yu bokkul fu ñu jóge ñu boole leen ñaw ko def ko laxasaay kooku moom Seera Fall mi ngi ñuy jàngal ni monde tey bi jamono ji ñu nekk nii euh, diversité culturelle bi ak diversité religion bi ak maanaam wuute nit ñi wuute bi ñu wuute ci wàllu xeet wuute ko si wàllu gëm-gëm àdduna bi day toll foo xam ñëppay jaxasoo ndax àdduna léegi benn dëkk la fenn soreetul ndax dangay nekk fii ñu def émission waa États-Unis di la seetaan waa Japon di la seetaan waa Chine di la seetaan waa Dubaï di la seetaan donc àdduna bi léegi village planétaire la nit ñi léegi seeni yittey jamono da leen di yóbbu dañuy jaxasoo par force te su boobaa euh, ki ñi defar mooy ki nga xamante ni moo mën a nangul yàlla loolu mu dogal parce que yàlla moo dogal nit ñi wuute ci wàllu der ci wàllu làkk ci wàllu melokaan ci wàllu bëgg-bëgg ci wàllu yëg-yëg loolu yëpp yàlla moo ko dogal donc lu mu ci jublu ngir ñu mën a weccoo échange mën a am tu léegi nag ki nga xamante ni nag mooy artist mooy ki nga xamante ni moo defaru ba yooyu wuute yooyu yëpp mu fexe ba ñu méngoo di mën a dund ci jàmm te ku ci nekk nangul boppam moroomam maanaam mën nañ ko sax iddi ci wàllu jukko bu ñu tuddee muñ waaw muñ waaw muñal sa moroom nangul ko li mu doon mooy nangul li yàlla dogal donc njaxas day symboliser loolu deuxièmement Cheikh Rafal tamit wane na ci naka lañuy defaree doomu aadama parce que l'islam lenn la yittewoo muy jikko bu rafet te nit ki bu fekkee ni da koy yar du du da xëy suba rek mu mel ni nga bëgg déedéet bis bu nekk dangay da ngay am looy def bis bu nekk da ngay am looy def bis bu nekk da ngay am looy def ba jëmm ji mat loolu lu mu koy tiri mooy que ni moom liggéeyal boroomam taxoon na amul jotu jëmmam parce que jëmmam jumtukaay la woon boo xamante ni daf ko war a jëfandikoo ngir liggéeyal jëmmam ngir liggéeyal ngir liggéeyal boroomam ba nga xamante ni bëggul woon nekk ci yitto yi jëmmam mu muy tardeel liggéey bi ba nga xamante ni daf ko daan fàtte xam léegi bu ko defee tool yi nga xamante ni ci la nekkoon ba fàtte jëmm ji nga xamante ni foo mu suturaal ko amul woon jotu dem di uti lu mu suturaalee jëmm ji mais ci biir kaw yoonam ab morceau bu mu jot rek bu mu for ci kaw yoon bi rek da lay fóot ba mu set mu taxale la ak beneen morceau bi foofu mi ngi fay jàngale ni nit boo koy defar te ngay def bis bu nekk rek nga fóot dara toftal maanaam ni muy dajalee morceau yi di ko toftalante ba mu mat mbubb daf ñuy bëgg a won ni noonu la ñu war a def doomu aadama moo tax ci daaraam da nga fa daan gis ñi nga xamante ni dañ doon wax ni dañoo yées wala dañoo bon moom ñooñu ñu la daan jël di leen fóot di leen defaraat ba def leen ay góor yàlla donc njaxas daanaka day symboliser naka la ñuy yare naka tamit la ñu war a dundee ak jaami universellement ngir xam nga sëñ Abdoul Ahad doon wax naan jullit neen àdduna yoon la lu baax lu ne jullite ko moom fu mu ko fekk war na ko mën a for jël mhm. alalam la waaye lu bon lu nekk mhm. jullit yoonam nekku ci fu mu ko fekk na ko fa bàyyi donc waxul ni bul waxal ne xasteel waxul ni kiiwal mais mhm. euh, foofu euh, te jullit war nañ koo mën a yar ba mu dëkk jaan ci benn pax te du ko màtt donc Eh, ci wàllu njaxas bi mën nañ ci gis loolu ci wàllu njeñ yi tamit mën nañ ne yittewoo boromam ba fàtte jëmmam moo tax njeñ yi génn taxawee taxawaayu symbole waaw yaa ngi dégg wax ji këll yi nga xamante ne ba mu jaayanteeg Serigne Touba ak kuur yi ak ak sembiñ bi kuur yi yooyu moo doon jumtukaay yi nga xamante ni mooy que ni li jëmm war a liggéeyee nit da ko war a ñàq ñàkk jariñu boobu ñàkk jariñu boobu dafa nekk maanaam bagage yooyu moo ko doon symboliser donc jëmmi Cheikh Fall gi ci saayir lenn lu ci nekk rek am na lu muy jàngale am na lu muy symboliser te buñ ko toppee philosophiquement dafay taxaw taxawaayu euh, outil pour développement temporel nga xamante ni ni ma la ko mën a waxee ni Cheikh Fall bu fekkoon ni étudier nañ ko Sénégal jàng nañu ko mën na nekk symbole euh, mën na nekk euh, référence mhm. ak modèle mhm. pour le développement temporel pour développer Sénégal saayeru Cheikh Ibra Fall bi waaw lu ci demee ni tamit euh, majaal gi mhm. nga xamante ni hmm, ci yoon wi la bokk daan nañ ko buñ la mësaan di tarbiya parce que góor yàlla yi ay docteur lañu góor yàlla yi ay docteur lañ te góor yàlla yi boo mosaan ñëw jébbalu dañuy xool sa xol bu ñu ci fekkee sikk vis boo xamante ni gënul pour ñu dindi ko dañ lay dañ lay dañ lay jox benn xeetu jëf joo xamante ni boo koy jëf dina dindi vice boobu ci yow boo gisee rëy ku mosaan ñëw jébbalu seerafaal ba xoolee ni rëy daa nekk ci sa xol dañ lay yalwaan loo am nit. parce que nee nañ doomu buur yi sax ku ci musaana ñëw ci sëñ Tuubaa da lay yebal ci maam Cheikh Ibrahima Fall ceddo itam ku ci musaana ñëw jébbalu dañ lay nga ñoom dañoo baaxoo feebar boobu ñuy wax feebaru rëy. rëy voilà léegi tam ceddo yi Cheikh Ibrahima daan na wax ne maanaam. Mhm. bàkkaar bi daw ci ñëw. Mhm. maanaam nee na. loolu ci seen deret yi la ne mhm. loo xam ne da ngay jël sa kurus ne astafurlah mu dëñ wala nga toog sa groupe ku dem beru di jaamu yàlla mu dëñ mhm. mais foog ñu liggéey loola mhm. ñàkk bi génn coow fu mu xotti jaar rek maanaam tilim tilim daf fay génn su ko defee kooku bu sellee ñu mun koo boole ci njaboot xam nga kooku lu ñu ci day ñëw ci ñaqal góoru yàlla ñaqal góoru yàlla ñaqal lislaam parce que Cheikh Rafal da doon im da doon da doon da doon da doon euh, liggéeyloo jaam yi ci toolu lislaam ngir ñaq boobu di jege ci ñoom ñu koy delloo ci toolu lislaam loolee nga xamante ne mooy setal seen seen deret setal seeni setal seen i setal seen i jëf setal seen i euh, euh, setal seen bopp ngir loolee résultat boobu ñu defaat ko ci toolu yàlla bi mu nekk beneen xeetu investissement boo xamante ni dina jariñ ci saayir mais dina leen jariñ ci baatin donc tamit euh, foofu tamit Euh, mbir a ngi fa. mbir a ngi fa. mbir a ngi fa macha allah jooju. li mhm. indi am na solo lool. Mhm. ndax euh, suñu borom noonu la ko waxee sax ci alxuraan. Mhm. ndax dana maa leen bind wuutale leen ci ay xeet. wutale leen ci lépp. waaye li mu ci jublu mooy ngeen xamante. te yaa ngi koy jàngale ci njaxas. ndax ay melo la yoo xam ne benn bokk ci moromam. wala sax day léeb naan. man de sama kër dara bu Baay Faal la ku ñëw gis fa sa couleur junj la. dëgg la wala ñu bëgg woon ne Cheikh Ibrahima maanaam boddiwul kenn. dëgg la ndax dana woon fu ngeen demee bu fu ngeen jublu ñu ne du fa bu ngeen ñëwee fi mënoo ne leen fii la. dëgg la ndax kii faje moom. li ko hmm. war lenn képp la mooy fu seet tawat nekk nga mun koo génne. dëgg la te Cheikh Ibrahima docteur spirituel la woon. dëgg la te jaam ñi tawat. loo hmm. nekkoon itteem waaye tawat bi du tawati yaram tawati xol la hmm. te pour leen a defar alaa kulli xaal faaw am fu mu leen jaarale te indi loolu ci biir wax bi ndax yaa ngi leeral ne médecin bi ni muy def jaam bu ñëwee. Mm-hmm. mu diagnostiqué la ba xam ni kat yow sa tawat lii la mu ayala lii digal la lii moom it noonu la ko doon defee ci xolub taalibe yi fu jàmm sa jóge tilim boo mën a indaale ak koo mën a doon mhm. dafa am lu muy wone daal mhm, dafa am lu muy taxawee waaw wala ak te loolu yëpp yaa ngi ci indi lu leer loo xamante ne amaana jàmm ñi bu ñu ko déggee dinañ ci mm. gën a gindiku dëgg la waaye nag dafa mënta ñàkk ñu leeral ko mm-hmm. ndax dañ ne lépp lu am forme am na fond mm-hmm. te nag mënoo tëb rek xuus dugg ci biir fond te yemoo ci leeraloo forme ba lu mu doon dëgg la ba nit ñi xam tey jii njaxas bi jaam ñi di sol fu ñu ko jëlee ndax amaana ci taarix dañuy nettali mm-hmm. ñu ne njaxas ba kat Cheikh Ibrahima Fall da ko doonoo ci yonent bi ñu naan Zulkifli ndax Cheikh Ibra bi muy ñëw jamono góor yàlla bu nekk am na loo yëkkati ci say bagage dénk ko ko ne ko boo demee barkeeloo dëgg la waaw tax loolu tamit dafa am muy def mhm. ndax góor lépp lu mu jëloon mhm. su ko fi bàyyee keneen ko day dundalaat loolu dëgg la te loolee keneen ku ko laalaat rek yiw bi da lay fekk nañ ko ci mhm. déggee nañ tam ci ñañami ne am na fu mu jógee Cheikh Abdou Khadir Jëlaani ak waaye lii nga ci indi tam day gën a leeral parce que li tax mooy euh, jamono dafa toll foo xam ne dafa baax ñuy leeral ay mbiram moom maam Cheikh Awa Fall dëgg la ndax c'est l'incompris maanaam yoon wi lépp loo fi indi mun nañ koo définir leeral ko ba mu leer mais charafal la kenn mënta leeral mhm. te nag euh, day toll foo xamante ne jaam ñi dañ cee war a gindiku nag ndax mooy yoon wi kon nag bu ko defee xam naa dañuy tàmbalee xuus nag ci ñu biir waxtaan ay ci bismillah mm. fi ñu koy tàmbalee nag euh, mm. ndax Cheikh Ibra dama ne woon sànq dañuy waxtaan ci ñaari phase mm-hmm. benn phase bi ci jiitu mooy phase exotérique bu ñu ko génn nag saayir si mm-hmm. léegi nag day baax tamit ñu dugg ci baatin bi mm-hmm. ndax li tax mooy Mhm. Cheikh Ibra léppam rek dafa am lu muy jàngale mhm, dëgg la moom bu muy ñëw ci sëriñ Touba di jébbalu yàpp sa xànc Fall la tuddoon la mais bi mu ñëwee sëñ Touba moo ko tuddee Ibrahima dëgg la Ibrahima nag lu muy tegtale ci lislaam ndax maqaama bu foor la dëgg la ndax yonent yàlla Muhammad dañ ne moo gën ñëpp waaye bi mu ñëwee yàlla da ko ne toppal sa diine maam Ibrahima dëgg la ndax dogugam dogu ko tur woowu di Ibrahima dëgg la ba noppi ñu gis ne Cheikh Ibra mhm. tuddee nañ ko Lamp Fall dëgg loolu maqaama la am na lu muy tegtale. dëgg la ndax lampe support la li ko tax a jóg mooy niit. dëgg la ndax dañ ne sëñ Bamba ker la woon ci biir lëndëm seex waa ko niit ba génnee ko. dëgg la akasaa ba jaam ñu mën a jëriñu ci moom. dëgg la kon nag lampe boobu noonu am na lu muy tegtale par rapport ay mbiram moom maam Cheikh Ibrahima Fall. dëgg la ndax bu ñu nee Cheikh Ibrahima Fall teg ca lampe. Mhm. lampe dafa am lu garaw lu muy tegtale parce que boo demee ci alxuraan. yàlla mu ngi ne Muhammad sallallahu alayhi wa sallam woowal jaam ñu yóbbu leen ci yàlla. Mhm. waaye nag nekkal làmp bu leen di niital. dëgg la foofu nag xam naa dama fa taxaw di gën a xuus ndax yaa war a def jotaay damay ubbi buntu yi rek fi nga ko baax na dé non yaa war a xuus jooju yaa ngi dégg <laughs> uh-huh. bu ko defee uh-huh. maanaam làmp boobu noonu uh-huh. dafa am lu muy symboliser am lu muy leeral ci yoon bi ndax mm-hmm. lampe fu ñu koy taalee rek day fekk lëndëm ne fa ne fa kon nag mm-hmm. day mel ni Cheikh Oura mm-hmm. maanaam dafa am lu nëbbu woon ci Serigne Touba loo xam ne moo ko waroon a feeñal dëgg la te pour mu feeñal ko ala kulli xaal faaw mu indi làmp bu koy nit waaye làmp bi du lampe lumière lampe xam-xam la mm, dëgg la tey jii jëwriñ ana lan ngay indil mbokk taalibe yi di teelu dëgg la ci jëmmi Cheikh Ibrahima Fall làmp balaa ñoo ñëw ci baabul muridina loolu it beneen mbir la waaw xam nga lampe bi lampe Fall bi li ko indi foofu ñu indi taarix bi mm-hmm. ndaxte sunu maam Fàllu Mbàkke mm-hmm. sëñ Fàllu Mbàkke moo ko tuddee làmp mm-hmm. ndaxte bañ defaree jumaa ji ci taarix ba defar sooroor bi dafa teg junni dégg naa mu ne ku xam ku may tuddee làmp sooroor bi ku nekk di wax ku nekk di wax kenn trouvé ko mu jëlaat jinam ne mooy mooy làmp Fàlluwaay maam Ibrahima Fàlluwaay ndax moo ñu moo ñu tax ñu xam Mbàmba moo ñu nital yoon wi donc yàlla na ñu ko yàlla fayal sëñ Fallou Mbacke donc moo indi moo indi kii bi daanaka euh, foofu mais dafa am benn taarix boo xamante ni man dama ciy fikra c'est très important mm-hmm. Cheikh Ibra dafa ne ki may seet ba muy seet sëriñ Bamba mm-hmm. sëriñ euh, dafa ne ki may seet mm-hmm. bu ma ko gisul dinaa wër bàmmeelam ba xam bàmmeelam fu mu nekk tarbi yu bàmmeel bi ba yoonu murit taxaw foofu c'est à expliquer dinaa tarbiyu bàmmeel bi ba yoonu murit taxaw moo tax foofu dégg naa sëñ Bam Cheikh Ibra doon bu ñu neen ne yoonu sëñ Touba bi mu ne sëñ Touba du yoon wi de yoon wi man mii maay yoon wi mm-hmm. sëñ sëñ Bam ay la man mii maay yoon wi donc euh, Cheikh Ibra moo ñu woon ni ñuy toppee sëriñ mm-hmm. nu ñuy nu ñuy nu ñuy utee yàlla mm-hmm. Cheikh Ibra loolu lañu ñu woon dafa am ay étape parce que première étape bi mooy ci sëriñ bi mu mujj tarbiyu mm-hmm. ba mu fa nekkee di liggéey. Mm-hmm. ba muy seet sëñ Bamba. Mm-hmm. fekk amoon na ay tegtal. amoon na ay tegtal ndax yàlla mi ko moom moo ko tegtal ni ko Bamba moo la moom raasi ko jox ko say pexe. waaw te nee nañ bu mësaan bi daan seet bu sëriñ ba mu dégg ni am nga xam-xam bu ñëwee da laaj. ay question boo ubbee téere moo xam ni. lim lay laaj doo doo ko muy seet. mais yan question la doon posé sëriñ si. lan moo tas Cheikh xamoon ni question yi muy posé réponse bi nekkul ci ay kayit. Mhm. <laughs> parce que moom li muy ñëw di seet du lu ñuy fekk ci biir kayit. déedéet. dana ko fekk ci góor yàlla boo xam ne xam-xam boobu mu ngi ci moom. waaw ah, parce que yàlla boo ne bu ngeen may wër. Mhm. wër leen ma ci dënnu góor yàlla yi wër leen ma ci xol bu sell la. te laay wàcc mooy sama bërëb. Mhm. te Cheikh yàlla la doon wër. question boobu boo xoolee ba mu dëggee kër sëriñ tuuba Ahmad Bamba weeru koor ñépp di woor wooru ñëpp di julli julliwul sëñ Bamba ba mu ko wee ne ko lan mooy lan lan mooy euh, lan nga utsi ci sama kër lan moo la fi indi mu ne ko yàlla laay wër sëñ Bamba ne ko bu ñu xamoon fu yàlla nekk doo ñu fi fekk mu ne ko tànk yàlla laa topp ba mu ba mu ba mu réer ma ci sa biir kër gi. te gisuma fu mu génnee te gisuma mu génnee. soit da moom wala ñu àndi seete ko ndax jaam wóorul ut lenn ci kaw suuf lu dul yàlla. mais foofu foofu sëñ gars yi waroon nañu xam ni. boobu Cheikh Ibra sëñ Bamba taxu ko jóg yàllaa ko tax a jóg yàlla la doon wër. Mm-hmm. te yàlla jamono ji nekk am na bunt ci kaw suuf. Mm-hmm. Mm-hmm. mais laataa ñuy ñëw foofu ba mu nekkee ci kër sëriñ bi. ñoom mhm. sëñ Adama Gueye ak sëñ Makhtar Touré ñoo fa jaar. Mhm. leeram nga woon ko ko jëm Mbàkke ko jox sëñ Bamba yow li ko ci buur Cheikh mbiram daal di ca ngoon mooy mu woon ko mbër mu rëy sëriñ ba naan ko foofu. <laughs> dëgg la kon taarix indi na ko. dëgg la. Mhm. te Cheikh Ibrahima dafa leen waxoo ca am solo. mu ne leen yéen doom. bu ngeen doon ay jigéen. ñu ne yéen a ngi ëmb bay waaj a ëmb leer. gisu bopp gisu xol. yaa ngi dégg wax ji. Ibra mm-hmm. lan moo tax mu xàmmee ni ñooñu ni ñu ngi ëmb leer. Mm-hmm. kon am na bëti xol. donc cela veut dire que. Mm-hmm. li muy xam na ko. ñoo ñooñu. ba mu leen laaje ñooñu ne ko ñu ngi jógee ci Modou Bamba mu ne leen beneen Bamba daa am mu dul bii. ñu ne ko waaw mu ne ko damaa bëgg ngeen yóbbu ma fa ñu ne ko ñu la ñëw yónni boo bëggee ba ñu dëppee ñu ànd mën na leen doom maa ngi leen di xaar mm-hmm. bañ demee ba ñëw mu dem tàggu sëriñ bi sëriñ bi bu muy tàggu mm-hmm. sëñ bi dana ko fii kenn mësu fee jóge dem di toppi keneen fii ku fi jóge da dem di faji soxla mm-hmm. Cheikh Ibra ne ko da ngaa xëyoon xëy gis ma ma xëy xëy na la ñaanal ma te nga may ñaanal ma dem foofu tamit Cheikh Ibra mi ngi fay wone philosophie ak fulla ak fayda boo xamante ni dañ koy soxla ci góor yàlla góor yàlla day am fulla am fayda xam li mu bëgg. yaa ngi dégg wax ji mm-hmm. xam na li mu bëgg. Mm-hmm. te am na ci fulla ak fayda ba nga xamante ni kenn du ko yàqal. Mm-hmm. loolu tamit c'est à noter. Euh, ba mu jógee foofu ba mu duggee kër Serigne Bamba jaayante ak moom. mu ne ko sëñ bi ne lu la tax a jóg mu ne ko àgg ci yàlla comme ni ma ko indee léegi mu ne ko bu ñu xamoon fi yàlla nekk doo ñu fi fekk mu xamal ko ni tànku yàlla laa topp ba mu réer ma ci sa biir kër te gisuma fu mu génne soit dangay moom wala ñu ànd dem ci moom uti ko sëñ Tuubaa ba mu xamee ne kii xam na lu muy ut ci la ko ne mi ngi fi waaye dafa am lu mu laaj mu ne ko lu mu laaj mu ne ko jébbalu mu ne ko nu ñuy jébbaloo mu ne ko da ngay jël sa lépp jox ko yàlla doo bëgg leneen lu dul yàlla pepp ne ko soxla mooy fi lu toll ak pepp mu ne ko murit bu jëm ci yàlla li gën ca la muy jaamoo yàlla mooy laa illa allah sax xayru taami lil muridi saaliki dawaamu zikri gën ci bi nga xamante ne sóobu mhm. mooy takkor di tudd baat laa léegi baatu laa ilaha illa boobu moo sos lislaam mhm. mais du tur bi mais sirr wi la mbóot mi <laughs> te mbootuur laa ilaha illallah parce que sëñ Bamba Cheikh Fall laataa muy gis sëñ Bamba daana tudd yàlla parce que yaay bu ñu fàtte ni Cheikh Fall xaafisul xuraan la lox lox téere yi xam na li nekk ci biir lépp te xam na ne la muy wër nekkul ci téere te sëñ Bamba nee na mbootu laa ilaha illallah xajul ci diggante ñaari ngaru masaalikul jinaan indi na ko ci ñu ne ko ñu koy amee mu ne da ngay fekk ku ko am nga jaaxanteex moom mu jox la ko. donc mhm. looloo waral ñuy jébbalu. looloo waral ñuy jébbalu kon taxawal foofu parce que. Mhm. boo deltuwaatee ginnaaw tuuti ci biir wax ji. Mhm. daa mel ni Cheikh Ibrahima jàngal nañu naka la. naka la ñuy utee taalibe ak parce que naka lañuy sàkkoo yàlla. jiitu. ba muy jóg mhm. am na li ko tax a jóg te xam na li ko tax a jóg moom waaye itam li ko tax a jóg xam na fan la koy wërijee mhm. te Sëñ Tuubaa jàngaloon nañu ne mhm. wax tabiri rijaala xab la suxbaa wala tusaxib umran aw zaar axbaar waaw mu ne balaa ngaa jëflante gaañ na nanga leen peese bul doonub dof maanaam ñëw rek tëb soobu ci mbir te gëstuwoo ko ba xam lam doon mën naa tax ñu nax la waaw ndax tey nit bu yoree xaalisam. Mhm. bëgg wurus te xamut ab wurus mën naa dem ñu jaay ko xandeer. waaw ñàkk xam moo ko dugal ci loolu. dëgg la kon dafay tegtale que ni kon Cheikh Ibra. Mhm. jàngal na taalibe yëpp que mhm. balaa ngeen neeti ñokket dem di wëri ji na ngeen xam li ngeen di wër lu mu doon ak fañ ngeen koy fekk ba pare. am na sax nu mu ko waxee ne na balaa ngay dugg ci néeg da ngay fëgg. waatul bu tamit abwaabi <laughs> te sëñ Tuubaa nee na du lu ron lu nekk bong bong la. lu leer lu nekk tam nga ne foofu. tegtal digal nañu nanga jëfandikoo sa xel na ngay xalaat parce que yàlla dafa bëgg kuy jëfandikoo xel di xalaat xel jumtukaay la xamante ni lépp looy def da nga koo war a dangay war a jëfandikoo sa xel donc bul jiital émotion bëgg-bëgg wala gëm-gëm ndegam ay buntu lañ am nañu am nañu parce que yoonu yàlla bi gëm mooy bunt bi te gëm ak bëgg kenn mënu leen ñoo bokk essence bokk sirru gëm mooy bunt bi waaye bu fa taxaw parce que gëm mooy nangu loo xamul waaye deuxième station bi mooy xam gëm waaw yàlla dafa fekk ni tey ji bu ñu la joxoon ne lislaam école la nga war fa jàng pour am fa benn diplôme hmm. xam nga foo nga inscrire ci école bi moom déet léegi nag boo inscrire ci école bi mooy gëm naa inscrire naa hmm. léegi école bi day am ay règlement hmm. loolooy charia <laughs> c'est la jurisprudence léegi charia yooyu réglement bi règlement yi li mooy yiñ tere ci école bi yaa ngi dégg wax ji yiñ tere ci école bi bul euh, jàppal ni yàlla kenn la bul sàcc bul fen bul njaaloo bul rey nit bu dee jigéen la bul jural sa jëkkër doom bu mu jurul mooy tere yi ñoo njëkk ñoo njëkk digle yi boobu ñu ngi lay purifier boobu ñu ngi lay tarbiya loolu mooy premier charte bi ci école bi ma modèlu tarbiya yonent bi wax damay bëgg des fois ñu présenter yonent bi comme wasila comme sëriñ parce que dafa am ñaari phase yonent bi yàlla def ne ko demal nga jottali jaami sama kàddu buñ la nangulee womat leen yóbbu leen ci yàlla foofu day taxaw taxawaayu wasi la te pour nga indi leen ci yàlla foo nga foo nga yeesal leen foo ñu sell la mm. wax yàlla lu sellul du fa àgg léegi nag jëmm ju sell ak ruuxu bu sell bokkul mm. parce que nit jëmm la ak ruuxu mm. jëmm du dem ci yàlla ruuxu mooy dem fa yàlla te feebaru ruuxu ak feebaru jëmm bokkul léegi charia moom jëmm lay wutu lay wattu parce que yooyu ngay def yooyee ñu tere boo koy def day yàq sa jëmm te faw ñu watti jëmm bi parce que mooy sa jumtukaay ndax àdduna tool la toolu lislaam la àdduna toolu yàlla la dañ la fee wàccee ngir nga liggéeyal sa borom yàlla jox la ay jumtukaay yu mat sëkk muy tànk yi ngay doxe loxo yi ngay laale nopp yi ngay dégloo bët yi ngay gisee bakken bi ngay xeeñcoo làmmiñ bi ngay tuddee xel mi ngay xalaatee xol bi ngay bëggee yooyu yëpp ay jumtukaay la yuñ la jox ngir nga liggéeyal ci yàlla ci tool bi léegi nag jumtukaay yooyu leneen loo ci liggéey lu dul yàlla sàcc nga sàcc nga ah, sàcc nga mhm. foofu la tuddee détournement mhm. spirituel mhm. temporel daa tax yàlla mu ne la yowmal xiyaam bis penc cër bu nekk day wax la mu daan def. kulluhum aati yowmal donc te nit xam nga nit mooy wax yooyu nit moo naan sama tànk sama loxo sama bët sama mm-hmm. kërti kërti. mu koy wax ci suratul bi nga xamante ne mboolem cër yi dinañ tax dañuy wax mm-hmm. cër bu nekk wax la mu doon jëf. Mm-hmm. léegi nag bu fekkee ni jëf nga lenn loo xamante ni wuutewul ak ngërëmal sunu boroom sàcc nga. maa sàcc mhm. yàlla leen joxoon di ay njëfatuku jëmalewuñ ko ci le léegi sàcc saayir yi nga xamante ni maanaam sàcc sa portable sàcc sa saak sàcc sa sàcc sa dugg sa néeg sàcc say bagages yoo xam ne ni yaa ko fàggoo xam sunu borom dafa ne lu saayiru baatinu na la léegi yooyu mhm. mooy jëmmal sàcc bi nga xamante ni ñiy sàcc ruuxu xam nga mooy lan. Hmm. maanaam ñiy nangu sëriñ. Hmm. te xamuñu fu yàlla nekk. dangoo def sa bopp sëriñ te fekk motoo ko. xamoo yoonu yàlla bi xamoo fu yàlla nekk nga woote dajale mbooloo te mënoo leen yóbbu ci yàlla. ba Cheikh daa waxoon lool dana jamono ngi ñëw mat sëñ Bamba dinañ am lu ñu naqari lool doom te mbat ma yéen nañu koy teg. Hmm. mu ko faal luy mbat ma. mu ne mooy doomi sëriñ soo xamante ne maanaam baayam daa nekkoon ci waar wi xëy bés wàcc doom ja xamut fu baay ja nekkoon ak calam nekkoon mbooloo ma dog topp ko mu ne kooku xamul fu mu jëm bay xam fu mu jëmee mbooloo yaa ngi dégg wax ji ak sa te loolu booy xool dafay bari léegi wala du seex i ka cheikh yi léegi nag mbir mi nu mu demee nii ci saayru noonu la demee ci baatin maanaam nga dox diggante jaami ak seen borom te waxoo leen li li yàlla wax. Hmm. yóbbuwoo leen ci yàlla. Hmm. kooku responsabilité bu rëy la. kooku benn mbir la. Hmm. Cheikh Ibra woon ñu ni ñuy toppee sëriñ. ba mu demee ba jox boppam sëriñ Bamba. sëñ Bamba wax ko condition yi mu nekk ci nag boolewu ko ak dara. foofu tamit. taalibe ni mu war a jaayanteeg sëriñam. Cheikh Ibra wane na ko. balaa ñëw dugg foofu jëf mhm. dañuy taxaw tuuti ci tur yi ndax li nga dugg noonu day laalaale sax ñaareelu tomb ma bëggoon ñu duggaale ci biir waxtaan ci mooy Cheikh Ibrahima Fall baabul muridiina mhm. ndax euh, murid maqaam bu ko féetee kaw amut ndax dañ ne mbindee fi ñetti xaaj lañ mhm. fam ñoo xamante ne àdduna képp a leen ñor am ñoo xamante ne àdduna ñoru leen allaaxiraa leen ñor minkum man yuridu dunya mhm. yàlla nee na am ñoom seen mbir yëpp ci àdduna rek la yem mooy mhm. lijjanti nu ñu amee koom yooyu xeet tabax fi ay kër yooyu mhm. mais alaaxira dawaluñ fa dara seen yoon newut ci aljana dëgg la mu ne nag am na ci ñoo xamante ne ñoom alaaxira lañ bëgg aljana dee mucc dem aljana am ci xéewal yi saa borom dig dëgg la mais am na nag koo xamante ne bëggul àddina bëggut àllaaxira moom boromam képp moo ko tax moo ko tax a jóg te yonent bi dafa wax benn xaddis buy dëggal loolu ndax dane man ahaba ba xasara xasaral axira man ahaba al axira xasara dunia man ahaba allah xasara dunia wal axira mu ne nit bu bëggee àdduna ñàkk na alaaxira mu ne soo bëggee alaaxira ñàkk nga àddina mu ne waaye boo bëggee yàlla da ngay ñàkk àddina ak alaaxira kon day mel ni nit ki kon day jóge ci lu transcendant dem ci lu immanent léegi nag murit li tax ma ne maqaamu féetewu ko kaw mooy bu fekkee nit ki daa bàyyi àddina bàyyi la ne allaaxira bàyyi lépp ne boromam képp ko tax a jóg kooku su boobaa dañ koy woowee muridul leex te dañ ne ñooñee ñuy woowee muridul leex nga xam ne seen itte lenn képp la woon mooy jëmmi seen borom dañ ne Cheikh Ibra mooy bunt bi nga xamante ne ci la ñuy jaar pour mën a dem ci àlla loolu nag duma ci xuus di gën a yaatal dama lay bàyyi nga dugg foofu leeral loolu ndax tey ñu bari dañoo jàpp ne bu ñu nee baabul muridiina rek tur la woo xamante ne dañ koy dàqantelee Cheikh Ibrahima Fall mhm. fekk maqaama la boo xamante ne moom da koo ràngoo mhm. te buntu boobu Cheikh Ibrahima Fall di wane mhm. bépp murid boo xamante ne jaaragoo fa maanaam la tax ñu naan muridullahi yow laa la boo ko waaw parce que léeg-léeg Cheikh Ibra dafa baatinu xam nga man dama nekk Italie déglu benn baatu sëñ Muntaxa mu ne charia leer na nañ mais lu jafe matal la. ak xatu leer nañ nañ. mais lu jafe matal la. waaye am na leneen loo xamante ni coobare sunu boroom la sañ-sañu sunu boroom la. sunu boroom mooy def lu ko neex. te bu waxee loolu. xelam yëpp day dem ci maam Cheikh Fall. foofu dafay mel ni. mën na am Cheikh Fall booy xool ci charia dëgg doo ko gis. booy xool ci aqiqa dëgg doo ko gis mais mi ngi ci yaama neexu yàlla kooku beneen dimension la. Mm-hmm. woykat ba wax. mais raw na maanaam xeet nañ suñu bopp ci wax ni lii mooy Cheikh Ibra. Mm-hmm. mais yoonu murit nag mën nañ cee wax. Mm-hmm. te am na benn borom xam-xam bu bu am solo ci yoonu murit sañ mu dem. ku ko xam-xam na ko. mañ koy laaj ay question dafa ne Cheikh bokk ko Cheikh Ibra di laaj masala dafa ne ko. alxuraan de ak farata farata yàlla sunnas Muhammad ak alxuraan. Hmm. dara réeruma ci. Hmm. waaye yow sa sa yoon feferuma ci. feruma Baabul <laughs> hmm. euh, Muridin. xam nga lislaam diine lislaam dañ ko planifié ci ñetti tomb. iman islaam al ihsan mm-hmm. iman juróom benn tomb mm-hmm. jàpp ni yàlla kenn la mm-hmm. gëm yonent yi gëm téere yi gëm bis pénc gëm àjjana gëm safara muy juróom benn al islaam ñu ne juróomi tomb baatu laa ilaha illallah julli woor natt asaka dem màkk muy juróomi tomb nga ñëw ci ihsan yàlla mu ne na rafet benn tomb. ñu koy firi yàlla ba mel ni yaa ngi koy gis. boo ko jàppal ni ngi lay gis. gis yàlla feeñ na foofu. Mhm. salaam barki borom Touba doolay maam Cheikh ñu ngi tuubaat nag bu baax a baax ci ndog-ndog googu nga xamante ne dañ ko amoon léegi muy coupure euh, fas yéene waat yeggali jotaay bi rek su ko defee ñu ngi tolloon ci di waxtaan ci maam Cheikh Ibrahima Fall ba yemoon ci bunt bu am solo muy Cheikh Ibrahima mooy Baabul diina mooy buntu gaay yi nga xamante ne seen itte yëpp du lenn lu mooy jëmmi seen borom subhaanahu wa taala kon nag bu ko defee jëwriñ xam naa bunt boobu dañuy bàyyi nga safaat ci ay kàddu rek ndax tàmbali woon nañ ko muy jëmmi maam Cheikh Ibrahima Fall ndax euh, maa ngi koy leeral ci wax ji ma ne dafa am mbindeef yoo xamante ne ñoom itte seen itte àdduna rek la am ci nit ñoo xamante ne seen itte kawe na àdduna mooy ñu ngi xalaat nu ñuy faatoo dee dem aljana mucc am ci xéewalu suñu borom yi am na nag ñoo xamante ne seetuñu luñ mën a am allaaxira mbaa luñ mën a am àddina ñoom lenn rek mooy seen itte mooy jëmmi suñu borom subhaanahu wa taala ñooñu nag ñooy muridullaahi ma ne nag muridullaahi maqaama da koo féetee wut kaw ndax nit bu demee bu bëggatut dara lu dul jëmmi borom ndax bëgg yàlla ak bëggal yàlla daa bokkul ndax ki bëgg àddina wala mu bëgg allaaxira daa bëggal yàlla ndax amaana tey yàlla suñ borom mu ko bëggal bu ko ñàkkoon mu far des ci boppam mais ki bëgg yàlla ngir yàlla nag kooku mooy muridullaahi te nag kooku mënta dem ci yàlla lu dul ne daa jaar ci buntu bi di maam Cheikh Ibrahima Fall ndax alxuraan dane wa aatul buyuuta min abwaabihaa Seydina Alioune tegaat ci beneen kàddu mu ne fa man araadal bayta fal yaxti bil baab mu ne ku ittewoo li ne ci néeg bi da ngay jaar ci buntu bi kon nag Cheikh Ibrahima dafay bunt boo xamante ne euh, képp koo xamante ne bëgg naa àgg ci yàlla bëgg a xam boromam bëgg a am cër wala wàccuwaay ci boromam wala bëgg a làkk ngërëmal boromam Cheikh Ibrahima mooy buntu bi nga xamante ne ci nga war a jaar ba mën a jëriñu jëwriñ ana lan indiwaat ci buntu boobu ndax tàmbali woon nga ci bu ko defee dañ ciy sofaat rek. tal mustahib mhm. parce que dafa am jëmm yoo xamante ni boo xamul pays yàlla bi ni mu fa demee. Mhm. Euh, phase yi ko composé. Mhm. doo mën a justifier seeni seeni seeni comportement. si. dafa am benn aaya boo xamante ni ci alxuraan yàlla dafa ne. bu ngeen ma bëggul. dinaa leen fi jëlee sàkk ñeneen ñoo xam dañ may bëgg ma bëgg leen. dëgg la. bëgg yàlla foofu beneen dimension la yàlla daf ko jàngale si xam nga boo xoolee gëm ak li ci aju yëpp gëm yàlla gëm yonent yi gëm alxuraan gëm bispenc gëm àjjana gëm safara psychologiquement ak temporellement boo ko doon justifier dans le domaine scientifique domaine médecine lay tombeel mm-hmm. médecine mm-hmm. parce que boo xoolee mm-hmm. croyance ngëm dafay def effet ci sa réalité intérieure ci sa xol mais quand on parle du cœur on parle de de l'âme de de ruuxu te su boobaa jëmm ni muy feebaree noonu la ruuxu di feebare parce que nit jëmm la ak ruuxu ko jëmm. Mhm. li muy dundee ak ruuxu li muy dundee bokkul. bokkuñu. Mhm. te ñoom ñaar ñëpp yow miy nit yaa leen war a dundal. Mhm. ba pare ki créé jëmm créé ruuxu créé nit. moom moo créé liy dundal jëmm liy dundal ruuxu ak liy dundal nit. liy dundal jëmm nature bi moo koy produire. Mm-hmm. nature bi suuf si. Mm-hmm. géej gi. Mm-hmm. ngelaw li. asamaan si. weer wi. biddéew yi. ñoom ñëpp ñu ngi liggéeyal. lu jëmm war a dundee ci ndigalu sunu borom. <laughs> parce que jëmm si ruuxu la. li jëmm di dundee nature bi moo koy produire. donc nature bi dafa nekk benn genre mbindeef boo xamante ni l'industrie la boo xamante ni. Mhm. moom mooy moom mooy produire lu ñuy tuddee les euh, euh, les besoins primaires de li nit ki li jëmmam soxla pour mu mën a dund. pour mën a dund. Mhm. te loolu yàlla moo koy commandé. Mhm. moo tax yàlla ne dinaa leen won sama bopp ci nature bi. mais foofu tamit yàlla mi ngi ñu fay jàngal lu bëri mais il faut dañ ko codé il faut savoir lire mais lire boobu muy da nga war a jàngat nature yi ba ba dégg ci kàddu yàlla so bi mu waxee nature bi sax dafa wëlbati tegaat ci nit ki dafa ne dinaa leen wan sama bopp ci nature bi dinaa leen wan sama bopp ci seen bopp mhm. yàlla loolu la wax mes signes partout dans l'univers et jusqu'en à vous-même très bien mu ngi koy wax ci suratul Fussilat sanurihim ayatina fi afaq très bien loolu mooy il faut savoir lire mhm. beneen bi mooy yow ci sa biir jëmm. Mhm. nature bi am na les lois de la nature. Mhm. normalement am na tamit les lois physiques. muy ci sa mhm. jëmm. xam nit yàlla neen da ngay judd. am na bu ñu juddoo dama leen jëlaat ci saa si. am na ñoo xam dama leen fii bàyyi bañ am doole ma jël leen. ma jël leen ak am na ñoo xam dama leen fii bàyyi ba ñu màgget ma jël leen. ma jël am na ñoo xam dama leen fii bàyyi ba ñu màgget ba naax. ma dog leen jël. lan moo tax loi boobu physique boobu kenn mënu koo freiner. ko xam am na beneen xeetu loi kooku ci sa jëmm yàlla daf ciy wane boppam li ngi mel ni fleur bi mu juddu rafet nga admirer ko mu jékki-jékki lax wow dee foofu yàlla bi ngi la jàngal yow sa bopp mm-hmm. que ni àdduna lépp noonu lay demee lu ma tooy dina ma wow léegi kooku bu buñ fa duggee ci imaan imaan médecine lay traité. Mm-hmm. mais médecine ñaar la dafa am mm-hmm. médecine di corps ak mm-hmm. médecine de l'âme. yow sa santé physique mi ngi dépendre ci santé environnementale bi. kooku dimension la. nga ñëw nga ñëw sur l'âme. li koy dundal mooy turu yàlla. parce que leer la. moo tax yàlla. exiger la. parce que day bañ sa ruuxu dee. parce boo gëmul yàlla. sa ruuxu day dee. yow mi gëm yàlla boo dundalul sa ruuxu. sa ruuxu day feebar. te bu feebaree mën naa mujj mu dee. mu faatu ci lu léegi comme yow gëm nga yàlla yàlla indil la ay règlement yoo xamante ni da nga ko war a respecter pour maintenir sa ruuxu en dund. muy dund en vie dëgg la loolu moo indi julli nekk une recommandation divine. Mm-hmm. woor nekk une recommandation divine mhm. natt asaka nekk une recommandation divine dem màkk rek une recommandation divine parce que yooyu yëpp mhm. boo xoolee yàlla amu ci dara lépp pour yow la pour doomu aadama bi la dëgg la est que yaa ngi dégg wax ji dëgg la mais li tax yàlla recommandé loolu ba pare tëkku ci doomu aadama ne boo ko deful mu duma la mhm. c'est parce que daf la bëgg te da laa bëgg sauver mu ngi mel ni yow tey jii boo yar sa doom xam nga da koy dig tëkku ko ndax xam nga lu mu xamul te bëgg nga ko sàmm ba mu àgg ba xam loo xamante ne yow doog ko ko wax dëgg la moo tax nga koy digal di ko dik di ko tere di ko tëkku di ko tëkku yàlla noonu lay def ak doomu aadama mm-hmm. sa doom buy jàng école danga koy digal mm-hmm. da koy dig mm-hmm. boo jàllee examen la jëndal cadeau bi boo jàngul nag doo dem vacances te doo am tëkku ko ci lu mu bëgg loolu xam nga lu muy tollool boo ma jaamoo ma yóbbu la àjjana boo ma boo ma jaamuwul ma yóbbu la sawara mm-hmm. mais en réalité mm-hmm. loolu taxul jóg yàlla mm-hmm. yàlla sàkku la ngir dugal la àjjana mm. yàlla sàkku la ngir yóbbu la sawara dëgg la mais yàlla daf la sàkk mm. pour boppam te wax na ko ci xaddiisul xuts parce que dana kuntu kanzan lam tuxraf waaw fa ahbabtu an uxrafa fa xalaqtul xalq fa taaraftu ilayhim fa bii yaarifooni mu ne c'était un trésor caché. waaw personne ne m'a su. mu ne bi mu bëggee feeñ nag ci laa sàkk doomu aadama yi. yaa ngi dégg wax ji. waaw te yonent yàlla Daawuda moo ko laaj question boobu yàlla lu tax nga sàkk. Mm-hmm. mu ne ko dama nekkoon. Mm-hmm. dara amul. Mm-hmm. kenn xamuma. mu bëgg ñu xam ma. looloo tax ma amal. kon yàlla boppam moo tax mu amal ñu. moo tax mu ne buggul ko ko bokkaale. moom déedéet bëggu ko. moo tax nee na mën naa jéggale bàkkaar yëpp. ba mu des ku ma bokkaale. Mhm. te nee na bu ngeen bokkaalee lépp lu ngeen jëf yàqu. yaa ngi dégg wax ci. Mhm. donc suñu cause existence du àjjana du safara. safara war li jëmmi suñu borom la. Mhm. boobu. après ngay dem ba mu ñu créer ba pare. dañoo seede ci kanamam. signé. témoin. looloo indi ahadu bi. dëgg la. boobu la ñuy tuddee le pacte primordial. pacte bi ñu signante ak yàlla. mais comme foofu ñu nekkoon. Hmm. gisuñu woon leneen. Hmm. lu dul yàlla. Hmm. yàlla mettre ñu à l'épreuve. wàccee ñu fii. jox ñu sañ-sañu nangu. jox ñu sañ-sañu bañ. dañu xool ndax dinañ dëggal la joxante woon ak moom démb. wala dañu koy weddi jublu ci keneen ku dul moom. ak kasaayo ko donc loolu mooy enjeu bi. booy xool sax cinéma ak théâtre dafay mel ni ñun suñu dund ci kaw suuf. fiction la film la film la effectivement du dëgg. du dëgg. moo tax yàlla mu ne àdduna xam nga cinéaste yi bu ñu amee benn idéologie am benn projet am benn vision bu ñu bëgg a partager dañuy dem ci benn espace créer fa dëkk jouer fa benn film mais bu film bi jeexee rek ñu yàqate dëkk bi tas ko <laughs> si alors àdduna noonu la mel ci kanamu yàlla moo tax ñu ne la du dëgg du dëgg dañ ko créer juste pour une cause mhm. cause boobu bu jeexee mhm. àdduna day raaf moo tax boo comprendrewul mhm. da ngay jël àdduna jàpp ko jiital ko def ko muy sa lépp mhm. mais su boobaat tu perds ton temps mhm. te yàlla daf ko saboté àdduna yàlla daf ko bind ba pare saboote ko du jàkk ba mukk parce que àdduna yàlla daf ko bind à cause à base du chiffre deux chaque chose a son contraire moo tax foofu boo gëmee yàlla mooy nangu naa ni yàlla am na. Mhm. mais su booba boo amee xel di nga poser question boobu lu tax yàlla amal ñu. Mhm. léegi nag xam-xamu xam yàlla. Mhm. dafay ñëw. dëgg la. xam sa bopp. parce que foofu yaa ngi poser question man maay kan. fii lan moo ma fi indi. ak moo fi jógee fu ma jëm. bu ma fi jógee fan laa jëm. ak fan laa jóge ak fan laa jóge fan laa jóge fii lu ma fi indi. Mhm. bu ma jógee fii fan laa jëm. Mhm. góor yàlla yi ñu ne boo kees ñetti question yooyu boo amee seen réponse mhm. di nga xam li nga war a def sa warugar. dëgg la lu leer. te nee na boo xamee sa warugar nee sa feebar wér na. wër na si lu wër ndax di nga xam li nga war a def. di nga xam li nga war a def te boo defee li nga war a def wër. waaye yow tey jii boo doon dem ci dëkk. Mm. am lu la fa yóbbu. Mm. waaw lu la fa yóbbuwul dina la sonal. tey déedéet. yaa ngi dégg àjjana góor yàlla yi. Mm-hmm. seen jàmm fu fu fu ñu ko déj mhm. ci seen borom rek ñoom dañu xam ni ñoom mhm. yàlla moo leen indi ci kaw suuf mhm. lu dul yàlla amuñu ci soxla dëgg la te euh, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci alxuraan yàlla joxoñ na ko lu mel noonu parce que tànnloowu ko ay xarit mais da ko ne su ma la doon tànnloo xarit dinaa la nekkat féeteel ak ña nga xamante ne seen itte subaak ngoon mooy di tudd yàlla ngir jëmmi seen borom mooy fi mu ko naan wasbir nafsaka ma allazina yaddoxoona rabbahum bil haadaati wal xashi yuriduuna wajhahu na nga fekk sa nafsu te takkook ñi nga xam ne ñu ngi tudd yàlla guddi bëccëg suba ngoon te tudd gi ñuy tudd yàlla leen rek lañ ciy jublu mooy jëmmi seen borom léegi nag foofu mooy enjeu bi mhm. foofu looñ cause existence bi léegi Cheikh Ibra mhm. ba mu xamee ni ñun suñu cause existence mooy yàlla mhm. donc temps bi ñu ñu jox. parce que hmm. yàlla nee na yàlla waxuñu dama leen may dund de dafa ne dama leen lebal dund pour ngeen liggéeyal ma ci. Hmm. mais bu fekkee ni yàlla daf ñu lebalal dund pour ñu liggéeyal ko ci. Hmm. daf ñu jox temps de vivre. mais temps de vivre boobu bu ñu ko defee ci leneen lu dul yàlla boobu sàcc nañ. def nañ détournement lu leer nga wax lu leer. am déet lu leer lu leer kay nga wax. léegi Cheikh Ibra xool julli xam ne julli c'est temporel. dañ ko tënk ci ay waxtu. mu ne ça ne ak. pacte bi. dëgg la. xool koor mu xool douze mois benn weer lañ ciy woor. Mhm. mu ne noo ça ne correspond pas ak pacte bi. Mhm. xool na te asaka. Mhm. boo amee fukk jox yàlla benn. mu ne noo ça ne correspond pas. parce que moom ginaar moo moom nen ya. dëgg la kenn seet doog yàlla di ko ëppale. mu xool dem maak ñu ne leen siyaare ji néegu yàlla bi. moom mu ne damay siyaare ji sunu borom. dëkk ak moom. waaw foofu nag mbir nga fa parce que. parce que yaa ngi dégg wax ji uh-huh, maanaam baabul muridin gi. Uh-huh. léegi yii nga xamante ni mooy mooy dogme yi mooy uh-huh. ibaadaat yi ak mu amalaat yi yooyee sunu borom daf koo tegal jaam yi ñi nga xamante ni xamaguñu mais boo demee ba assimiler ko am nga droit wu nag jël sa bët teg ko foo xamante ni sori na parce que yàlla daf ñu woo ci jaayante mhm. ci compétition mhm. ci jëf ju baax te yàlla mhm. tax dëgg la ci lu wër leer parce que yaa ngi dégg wax ji donc Cheikh Ibra bëgg na tënk dundam ci xeetu jàmm yàlla boo xamante ne du seddoo yàlla ak dara foofu la Cheikh Rafal taxaw loolu jaayante boobu ñu war a jaayanteeg sunu borom moom la ñu Cheikh Rafal doon woon moo tax ñu tuddee ko baabul yi muridiin bunt yoonu murit ba pare tuddee ko aboo rijaalullaahi foofu dinañ fa dugg bàyyi góor yàlla yi <laughs> dimension la dimension bu kawe ngoog donc ci nu mu la ko mën a waxee uh-huh. euh, dafa am euh, islaam uh-huh. université bi uh-huh. iman faculté médecine la al islam nekk faculté juridique mais al ihsan kooku culture la Mm-hmm. incha allah là-bas on traite de l'amour mm-hmm. tey jii ma jox la benn exemple mm-hmm. jigéen ñi jigéen boo koy takk can sariya limité wu ko dafa ne góor am na sañ-sañu may ki mu bëgg lu ko neex lu ko soob li tax li tax fixé wul fixé wulu ko règle règle rek teg ko fa li tax mu bàyyi ko góor ki may lu ko soob ak lu ko neex ak li mu am foofu yàlla dafa am lu mu fay jàngale mm-hmm. parce que mbëggeel kenn mënu koo formaliser mm-hmm. Mm-hmm. effectivement mbëggeel kenn mënu ko formaliser kenn mënul wax nit ki nii ngay bëggee kenn ku ci nekk da ngay ak la nga bëgg moo tax tubaab ne la qui aime capitule ku bëgg jébbalu dëgg noonu la góor di bëgg yàlla di ko jàggale ci góor bëgg gi muy bëgg jigéen ba mu jaral ko mu xëy suba ngoon jot di di liggéeyal soxnaam soxna ni muy bëgg gi muy bëgg doomam jaral ko suba ngoon muy liggéeyal doomam te du ci xaar dara góor di liggéeyal ci soxnaam te du ci xaar dara soxna si di liggéeyal doom ji te du ci xaar dara waaye léegi ñun lan moo tax ñuy jaamu yàlla di ci xaar dara ñu bëgg yàlla di ci xaar dara waaw jar naa tax mu ne bëgg yàlla bëggal ko bokkut de parce que yaa ngi dégg waa ji Serap Fall ñëw woon ñu xeetu bëgg yàlla. jël lépp jox ko yàlla. te xaaru ci dara nag. moom la soxna Rabia di wax naan. le vrai sens de l'amour c'est aimer sans attendre d'être aimé. foofu dimension la. volet boobu nag lañu ñu Seera di jàngal. parce que aspect juridique bi c' pour nous protéger physiquement parce que charia lenn moo ko tax a jóg. yàlla moo ko wax leen julli ndax dina leen fegal lu ñaaw ak lu ñu sib. waaye zikrullah mul ko akbar. moo gën a kawe ci lépp moo gën a màgg lépp. te julli sikar moo ko tax a jóg. dëgg la yàlla sax da cee géej na ne wala géej naa ne zikrullahi akbar moo gën a màgg. xam naa ne julli ngir nga tudd yàlla. Mhm. ba pare mu ne tuddal yàlla ci diggante waxtu yi. Mhm. ba pare mu wëlbatiku di takku jullikat yi fële naan fa waylun lil musallin ñiy sàggane seen julli mm-hmm. xam nga loolu mooy lan mm. mooy ñi nga xamante ni la ñuy wax yàlla ci biir julli bi ak ba ñu sëlmalee la ñuy def dëppoowul ak lañ doon wax c'est contradictoire c'est contradictoire mm-hmm. moo tax yàlla boo jullee boo waxee moom ba noppi danaa la dégg naa la xool naka ngay comporté woo mm-hmm. naa am na ci benn góor yàlla boo xamante ne bu mosaan naan asalaamaaleykum sëlma rek day fente mm. nga laajee lu tax mu ne parce que malaaka yi bu fekkee ni julli bi baaxul dañ la koy sànniwaat te wóoluwul julleem moo tax muy fente tey bañ ñu toj bopp bi <laughs> est-ce que naa la bu baax <laughs> est <laughs> mais nañu sant yàlla mm-hmm. parce que julli dara gënu ko noble mm-hmm. mais essence julli mooy tudd yàlla mm-hmm. mais tudd yàlla làmmiñ buy tudd yàlla ak xel buy tudd yàlla ak xol buy tudd yàlla bokkul parce que jëmm dafa insuffisant pour jaamu yàlla parce que jëmm day feebar. Mhm. jëmm day tële. Mhm. jëmm day nelaw. Mhm. jëmm day kii donc. te yàlla nee na wa maa xalaqtul jinna wal insa illaa li ya'buduuni mooy yow nelaw ak lekk ak naan yooyu yëpp taxut ma sàkk la li tax ma sàkk la mooy pour nga jaamu ma képp léegi nag foofu jëwriñ mbir dina fa ne ndax. xam nga tey jii boo xoolee Cheikh Ibra ñu bëri dañ la naan li tax nag moom mu nekk un incompris uh-huh. du dara de. Uh-huh. ñàkk julli geeg ñàkk koor gi la. te sax nag góor yàlla yi dañ naan nit ñee xamut waaye Cheikh Rafal mësta ñàkk julli mësta ñàkk koor. Uh-huh. Euh, ndax su ma déggee ci say biiri wax. xam nga sëñ Tuubaa daa mës a toog bés rëdd aw rëdd. ne mag ñi rëdd wi ku ko jéggi. soo dee doo dem aljana sax war a nga jëm. waaw mag ñi ko toppoon yëpp ngir buñ dee dem aljana. ak ñi ko toppoon ngir ragal sawara mhm. keroog ba ñëwee wees wu ñu rëdd bi dafa la ñem Cheikh rek moo ñëw jéggi rëdd bi fekk sëñ bi fa mu nekk ne ko man bëgguma aljana rag maam ragaluma sawara mhm. man yoo rek yaa ma tax a jóg waaw te bam naan sëñ Bamba yoo rek yaa ma tax a jóg la ca sëñ bee ko tax a jóg waaye du jëmmi sëriñ bi waaye ndax moom xamoon na baatin bi toog ci sëriñ Touba. Mhm. kon loolu li muy tegtale mooy lan mooy que ni Cheikh Ibrahima Fall am na lu mu yor lu gën a foor jullee koor wala am na lu mu yor lu gën a màgg jullee koor xaaral ma wax la benn benn mbir kàddu sunu borom bu nekk dafa am ñeenti maxaama mhm. kàddu sunu borom bu nekk dafa am mhm. ñeenti maxaama mhm. mais dafa am maxaama boo xamante ne mooy euh, interprétation littéraire bi mooy riwaaya bi riwaaya te lu ëpp ci jullit yi ci lañ yem te dañ la traduction littériste ne traduit pas le vrai parce que yaa ngi dégg wax ji parce que tur boo gis am na melo melo boo gis am na jëmm jëmm boo gis am na ruuxu dëgg la waaw ñun julli liñ ci xam hmm. mooy jëmm ji këpp këppal sëgg si gi waaye ah, yow ma laaj la benn mbir hmm. liir biy doog a julli nu muy liir biy doog a judd nu muy jullee xam yàlla dafa la wax ci alxuraan julli du la wàcc ba nga ganee àdduna ba keroog nga fiy jóge hmm. waaw léegi liir nu muy jullee jar naa muy jullee xanaa sax ki dem ba ay cëram matul màgget. Hmm. xam nga sariya da lay war di la wàcc. di wàññi leen yu bari ki nga xamante ni dem na ba ay cëram. Hmm. wala xelam naax. Hmm. kooku nu muy jullee. ki tëdd. sukuraat. kooku nu muy jullee mënatul def dara. jar naa yow léegi ñu ne la sariya mu ne la boo mënul taxaw julli nanga lan. toog boo mënul toog julli na nga tëdd concentré wu rek. tëdd julli waaw nga ci julli rek. ah julli topp ba léegi nii. bàyyeeku la de moom. boo mënul taxaw julli. Hmm. na nga toog julli. Hmm. wala ñu ne boo mënul taxaw na nga wéeru julli. Hmm. boo mënul wéeru na toog julli. boo mënul toog julli na nga tëdd julli. dina la topp ba ne la julli ci say xef. kon julli gën na sori liñ fiñ ko fiñ ko yemale. parce que yàlla ne. yonente bi da ko wax ci benn xadis mu ne asalaatu ahzamu min ibadat waaw mu julli xeetu ci gën a màgg li tax nag julli gën cee màgg mhm. mooy mbooleem xeetu jaamu yàlla yëpp julli da dugal ko ci biiram yow léegi ma jox la benn mbir hmm. julli position boo ci taxaw am na lu muy symboliser ci saayir ak ci baatin hmm. boo taxawee hmm. am na looy looy looy boo sëggee jàpp say oom am nga looy symboliser boo sukkee am nga looy symboliser. boo mhm. toogee ataaya ba pare. am na looy symboliser. am na looy symboliser. Hmm. mais booy sëlma lan ngay wax. asalaamaaleykum. mais asalaamaaleykum mooy yàlla na jàmm àgg ci yéen. Mhm. est-ce que waruñu woon wax asalaamualeyka bu doon julli bi pour yàlla la. Mhm. asalaamaaleykum yàlla na jàmm yëkk ci yéen. asalaamaaleykum yàlla léegi julli boobu pour ñoom la wala pour yàlla la. jar naa laajte de. te ci biir faat Faatiha bi da nga ne iyaaka yow yàlla. iyaaka nax bu doo iyaaka nastahin. iyaaka mooy koo jàkkaarloo. Mhm. aarifoon yi dañ naan ci ñaari kaka yooyu ci la julli gi di baaxee ci lay yàqu. yaa ngi dégg wax ji. ba pare nga taxaw ne yàlla siraatal ihdina siraatal mustaqim. Mhm. yow yàlla wan ma yoon bi jëm si ci yow. Mhm. waaye yow naka ngay mën a jullee quatre-vingts ans di ñaan yàlla bis bu nekk ci waxtu bu nekk ak rakka bu nekk ihdina siraatal mustaqim. te mosoo posé question waa siraatal mustaqim boobu bunt bi fu mu nekk. yoon bi ak yoon bi ñaata phase la Hmm, jar naa laajte mos. Hmm? Hmm. donc yow toi tu ne poses pas de question quoi es un conformiste mais tu ne poses pas de question. donc cela veut ni yow. donc yaa ngi dans dans dans une dimension traditionnelle quoi. yow say waajur jullit lañ. def nañ la judd nga ñu ju tëdd la turu jullit. digal la tere la gëmloo la yàlla mais toi après tu ne poses pas de question. te sëñ Touba dafa ne. Mm. jëfeel ndigalu suñu borom yi. Mm. mais il faut toujours poser cette question la pour et le comment après. Mm-hmm. si. te boo demee ba xam. Mm. ma jox la benn exemple. ci benn phase bu ndaw. mën nga am nga am frère ngeen bokk kër. xam nga ku ci nekk boo amee say doom da ngay bëgg ñu réussir. si te li ngay bëgg mooy nañ jàng. nañ jàng effectivement. am diplôme. Mhm. suba ñu am place administrative. Mhm. am salaire bu baax. am sécurité sociale am mhm. retraite. ok kenn judd ci ci ci ci ci famille bi. mais moom amul yëg-yëg ci loolu non. mais yàlla may na ko beneen xeetu yëg-yëg maanaam mën na nekk un artiste. mën na nekk woykat wala mu nekk ku yàlla may mu mën a dessiner. mais kooku nanguwul dem école parce que loolu du passion am ci yëg-yëg mais il est inspiré mm-hmm. mais yow mi parent sa xel du dal ci kooku mm-hmm. parce que yow li dal sa xel kii defagu ko mm-hmm. mais kooku suba mën na nekk un artiste wala un kii boo xamante ni mm. frère mën na liggéey at moom mu tëdd di nelaw xëy suba defar benn tableau boo xamante ni bu ko jaayee mën na fay frère bi liggéey fukki at effectivement loolu lan la du misaal misaal bu gàtt misaal am nga ci àdduna. ci àdduna ah amul ci yàlla. nga yaakaar yàlla kay. am na ci yàlla kay. waaw ah, nit yëngu bay bëgg a dee suñ too wax na ko sax nee na xaliilu bil ilmi ak shiru shaab min al kashiri maha jahli la tiyaab hmm. nee na jëf ju bari ji ngay jëf lu tuuti li ngay def te teg ko ci xam-xam moo ko ëpp yool mu ne la jàng kaamil bi yëpp hmm. di ko tari te xamoo ko hmm. mu ne nga fikra ci benn araf ba xam li ci yàlla wund nee na moo gën jàng kaamil bi gis loolu la loolu la ñu naan de la connaissance divine. Ouais. et placer sa confiance en elle. Ouais. en elle. Mmh. est bien préférable que de rester à prier toute une nuit tout en restant un ignorant. ba pare mu ne la benn saa ci fikra. Mm. ci jëmmi sunu borom bi. Mm. nee moo ëpp doole mille années d'adoration. ak sax te yàlla ci alxuraan fu mu nee tazakkur rek da ciy teg tafakkur mooy zikru ak fikru. te il nous a invités. Mm. à raisonner et à méditer sur le sens de ces versets. Mm-hmm. afalaa yatadabbaruuna alquran war nga jékki-jékki yàlla ne la ma adrayka kan moo lay xamal ku lay gindi mhm. kan moo lay gindi mhm. yow ko topp ci wamaa adrayka wamaa adrayka wamaa adrayka mais yow jéem mu ngi mel nii rek nga ne salaatu ala nabi parce que yàlla suñu borom naa inna allaha wa malaykata yusalluuna ala nabi yaa ayyuha lazina amanu sallu ilayhi wa sallimu tasliman mu ne man yàlla ak samay malayka julli nañ ci yonent bi mais ce qui est julli leen <laughs> c'est c'est mooy mhm. ku dul julli du woor hmm. maanaam kuy julli du woor mënoo nekk bay Faal hmm. te Cheikh Fall nekk benn exemple wala benn modèle boo xamante ni hmm. umma bi yëpp la waroon a jariñ parce que fin wu fin wu procédure recommandation divine moom daf ko expérimenter dund ko damay julli dañ ne la da ngay taxawal julli jublu penku doo gestu. déedéet. doo wax. déedéet. Hmm? Mhm. doo wax ku dul yàlla parce que yaa ngi wax mais yàlla ngay waxal. moom ngay jokkal. Mhm. doo gestu. Mhm. doo xool coo jublu ci leneen lu dul yàlla. mais loolu symbole la. li tax yàlla mu ne taxawal leen julli ak waxtu yi dox ci diggante yi. mooy concentration. bi ngeen amoon ci biir julli bi. bu ngeen sëlmalee na ngeen ko continuer bu ngeen sëlmalee bu leen wax ak ku dul yàlla bu leen jublu ci ku dul yàlla. ñun bu ñu sëlmalee dem jublu ca leneen waaw. question. Hmm? léegi donc foofu. Euh, hmm? euh, boo jógee ci iman ñëw ci islam mooy recommandation mooy c'est la justice. Hmm. les recommandations et les interdits. mais am na troisième phase boo xamante ne c'est pour celle celle domaine philosophique la. c'est le pourquoi et le comment. mais faculté philosophique boobu moom la ñu dindi ci diine l'islam te Cheikh Fall moom la incarné. Mm-hmm. faculté philosophique boobu. Mm-hmm, mm-hmm, ñu koy tuddee la philosophie divine. xam nga ñun fii bu ñu waxee philosophie. liñ ciy njëkk a xalaat mooy Socrate Platon Aristote. ah. ñoom Schopenhauer. Hmm? waaw mais les philosophes européens. Mm. ñooñu seen i xalaat la ñuy jàngale comme philosophie. mais du ñu jàngale philosophie Muhammad sallallahu alayhi wa sallam philosophie l'islam. la philosophie divine duñ ko jàngale. lu tax loolu. te pourtant si jotaay bu ñu jub maa ko doon junj. Uh-huh. ma ne y a deux de philosophie. Uh-huh. dafa am lu ñu naan al falsafatu mabniyun ala uh-huh. ñu jël. dugal ko suñu école yëpp ñu koy jàngale. mooy philosophie bi nga xamante ci obscurité la basé boobu mooy al falsafatu mabniyun ala zulumat. gis nga philosophie boobu boo ko demee ba topp ba ci biir. parce que c'est rationnel li mhm. ñu lay laaj parfois day nekk question yoo xamante ne yow mhm. sa xel du ko mën a tontu su ko defee da nga sikki sàkk ci sa diine mhm. naan la ana sa borom mooy jaamoo loo xamul dina laaj yoo question yoo xamante ne yow euh, maanaam sa xelu képp mënu koo tontu. xam nga tey jii sax li koy idée boo jëlee philosophie occidentale la xam nga les pères fondateurs les références c'est Socrate et Platon. effectivement. te pourtant Platon dafa jékki-jékki rek mu ne damay dem ci temple Zeus ñaan fa. ñaan Zeus mooy seen la seen Zeus seen pour mu pour mu xamal ko l'homme le plus sage mm-hmm. parce que philosophie mm-hmm. c'est la recherche de la sagesse de la mm-hmm. forme de philosophie qui n'aboutit pas sur la sagesse est une spéculation mantal werante rek lay jur ak taxawaal moo tax xasaal yi daal di ne c'est une science forte mais incapable de rejoindre ses objectifs parce que à chaque fois day am lu ciy manqué gars yi dañuy jaawale connaissance ak sagesse bokkul mhm. philosophie mhm. tey jii boo koy jël mhm. gars yi bu ñu ne philosophie dañuy yaakaar ni werante mais philosophie mooy toute forme de science rationnelle logique loo xamante ni c'est palpable sa concret loolu mooy philosophie affaire xel la affaire de xel la c'est de raison quoi mais yàlla vérité la parce que dañ ne la raison est humaine mais la vérité est divine la vérité léegi nag yàlla vérité la il est au la de la raison yàlla des fois peut être illogique. waaw ah sax nag. Mhm. Mhm. te yàlla mi ngi la koy jàngal ci. Mhm. yoonu tasawuf. ci diggante Moussa ak Xudar. xam nga Moussa dafa ne ba ko laajee ne ko xanaa liy dund ci kaw suuf yaa ci ëpp xam-xam dafa ne waaw. yàlla ne ko juum nga de. am na sama jaam boo xam ci kaw suuf. du yonent mais lu mu xam-xamoo ko. la. Moussa daal ci muusa mu ne ah yàlla won ma hmm. won ma kooku ma jàng ci moom hmm. mu ne ko àndal sa taalibe bi hmm. ngeen jël benn jën ngeen topp tefes gi yéen a ngi fekk kooku fi géej gi ak ndox mi daje te ci jën bi ngeen di dund mais jën boobu fu mu dundaatee rek foofu ngeen di fekk bu jën bu rëccee dugg ci géej bi waaw xam nga loolu c'est pas logique ngay dund ci jën ñu ne la jën bi fi muy dundee foofu ngeen fekk waaj c'est pas logique c'est pas logique ndigal ndax yàllaa ko wax loolu bu ñu bu ànd ak bi bu sonnee ñu toog lekk ci jën bi dencaat mm. waaw ba ñu àgg ci benn espace ñu toog lekk ba pare taalibe bi di ut ndox ci benn kii teen mm. ndox mi laal jën wi jën wi dekki mm. dugg ci biir kii ci biir ndox mi teen wi mm-hmm. seytaane këf xel mi mu fàtte ko wax Moussa ba ñu doxaatee ba sonn. Moussa ne ko waa jëndal jën bi ñu lekk ndax xiifaat nañ mu ne ko maa ngi jéggalu de mais dama la ko fàtte wax mais fa ñu mujjee toog. jën ba fa la rëccee dugg ci teen wi. Moussa ne ko xel dal na nañ dellu foofu bañ dellu foofu ñu ngi fekk dar mu toog tiim tefes gi. mu ne ko ba ñu ñëwee ñu te mu ne ko yow la yonent yàlla Moussa mu ne ko waaw mu ne ko yow la yàlla yónni ci waa bandi Israël mu ne ko waaw mu ne yaa wax lépp ci jaam yaa ci ëpp xam mm-hmm. mu ne waaw mu ne ko toogal mu toog am benn picc bu ñëw. Mm-hmm. mel ni luy jël dara ci géej gi jógaat toq-toq boobu di delluwaat. Mm-hmm. mu ne ko boo jëlee jaam yëpp li ñu xam mu ngi tolloog toq-toq ndox mi xam-xamu yàlla mooy géej. Moussa ne ko dama bëggoon nga xamal ma ci lii la yàlla xamal mu ne ko mënul nekk. mu ne ko hmm. lan moo tax nga ne ma mënul nekk mu ne ko parce que amuloo patience. amuloo patience ne kooku mën a muñ. Hmm. foofu daf ko waroon wax rek da ko bëggoon wax ne amoo taalibi. Hmm. <laughs> mais day sàmmoon teg teggin. day sàmmoon teg teggin. waaw ah. parce que kee c'est mun a nekkoo ku mën a muñ Moussa ne ko dinaa dinaa dinaa dinaa dinaa dinaa dinaa dinaa Pastef hmm, dinaa dinaa mën a muñ dinaa jaayante jaayante ba mën a muñ hmm. mu ne ko à condition mu ne ko waaw mu ne ko lu ma la wax def ko nga def ko te doo ma laaj dara ak sa boobu dex naa ak Baye Fall feeñ na yàlla ngi jàngale tasawuf yoon bi jëm ci yàlla hmm. digal la nga def tere la nga ba te doo ma laaj dara exécuter les ordres sans <laughs> Mm-hmm. yàllaa ngi jàngale foofu mm-hmm. te yàlla mu ne ci alxuraan ragal ma ma xamal la mm-hmm. taqwalaa wa yàlla ko wax te alxuraan moo la wax loolu ça veut dire que alxuraan xam-xam riwaaya la te alxuraan yàlla wax ne il y a des versets évidents yoo xamante ne leer na am na ci yeneen versets yoo xam dama ko codé dama ko codé c'est une code de sagesse ku ko ko décodelul doo ko xam ba tax foofu la Serigne Touba di waxee yàllaa ma firil alxuraan dëgg la Moussa ne ko waaw mu ne ko ok ñu toog benn gaal romb mu ne ko hmm. ñu dugg ci gaal gi ñu dem ba ci digg géej gi xudar commencé bënn gaal gi hmm. logiquement xam na ni hmm. gaal gi bu bënnee dinañu suux te bu ñu suuxee ñëppay dee mais logiquement logiquement mu téye loxo xudar ne ko mais yow boo yàqee gaal gi ñun dañu day dig te dañuy dee xudar ne ko waxoon naa la ni condition bi may àndee yow mooy loo ma laaj te lu ma la wax defal nga def mu ne ko jéggal ma damaa fàtte mm-hmm. ñu dem ba wàcc mm. ci ci teer bi jéeri ji mm-hmm. xudar fekk ay xale yi foo mm. mu jël benn xale tër rendi rendi mm-hmm. ne ko mais yow xale bi innocent la lu tax nga rey ko te deful dara deful dara xudar na ko. waxoon naa la ne mënuñu ànd parce que li may def doo ko attan. doo ko mu ne ko jéggal ma une deuxième fois bu moo defee faute bi une troisième fois nag su mm-hmm. boobaa mën nga ma ñu taxali ko. Mm-hmm. xudar na ko ok ñu dem ci benn dëkk sonn. Mm-hmm. mar xiif. ñaan hospitalité. waa dëkk bi bañ. xudar gis benn miir buy waaj a daanu. mu ne Moussa nañ ko jubbanti. ñu jubbanti ko ba pare Moussa logiquement mu ne. mais na ñu fayeeku mhm. comme defaral nañ leen miir ba léegi ñu ngi ci logique par mhm. logique ak vérité bokkul dëgg la dëgg la foofu yàlla mi ngi fay jàngale diggante xel ak xol dëgg la <laughs> xudar ne ko yow fii la ñuy ko mhm. mais balaa ñuy taaxali ko dinaa la wax cause bi tax ma defoon li ma def parce que amul patience moo tax yàlla bu la diggalee da ngay def ba pare doo ko laaj pourquoi et comment mais doo ko te philosophe bi façon xalaati la mooy moom du jëf te xamul wala amul lu ko leer. balaa muy gëm day gis. yàlla nag da gëm ba pare mu doog la woon. parce que yàlla kenn du ko conditionné. dëgg la. waaw dañ lay discipliner. da ngay jëfe ndigal tere. ñu doog la defar ñu doog a def ci yow. foofu góor yàlla yi dañuy wax naan yenn enrifi mhm. euh, dañ ne xam-xamu Moussa am xam-xamu Xudar. Mhm. soo ko doon tàqale. Mhm. dafa mel ni ñoom ñaan ñëpp yàlla gindi na leen. mais yàlla suñ borom xam-xamam dafa yaatu géej la yaa ngi koy junj léegi parce que dañ ne Moussa yonent la bokk ci as mi kon mënta réere yàlla xam na boromam xudar itam réerewut yàlla xam na boromam mais lan moo tàqale seeni xam-xam ñu ne xudar yàlla da koo xamal programme am xamal ko nammeelam mais musaa nag yàlla da koo xamal boppam ak lim bind xam nga yàlla bu la xamanee lim bind lépp loo xoolati mën nga cee gis sa borom waaru ci sa borom mais programme am da koy nëbb xuddaar nag weesu na yàlla xamal ko lim bind mais da koo xamal lim namm mhm. te yàlla nag lim namm moo ëpp doole lim bind da ngay dégg wax ji kon gis nga xam-xam boobu day féetee kaw mais ba tey dugg nga ci patience xam mhm. loolu gàtt rek lu ma ciy leeral ndax yàlla ba muy tudd ay turam mhm. dañ ne sax benn tur rek la am li ci des yëpp ay dàkkantal la mhm. waaye danaan allahu rahmaanu rahimu nangam di di ba yegg ci sabuuru mu taxaw mhm. ñu ne téeméeri tur ba xëy bu dañ koo nëbb seuls les gens initiés moo leen ciy gindi kon du ñëpp dëgg léegi nag patience boobu dañ bëgg a wane ne yóbbu jaam ci boromam te jaam bu ko amut munoo am dara ci yàlla dafa am ñaari góor yàlla bu jaamu yàlla ba toll ci war am lu mu soxla digganteem ak boromam mooy pour mu xam ismu laayil azam bi mu yeggee ci war koo xam ñu ne ko demal ci barab sàngam mhm. diw mi ngi fay fekk moo la ci mën a gindi ndax moom képp a ko xam mhm. mu dem di wëri ji diw moomu ba dajeek moom mhm. bi mu dajeeg moom mu ne ko yow xam-xam bii nga soxla wala ismulaayil azam bii ngay laaj munu ma koo jox ndax teggin yi mu laaj yow munoo koo matale mu ne ko déedéet dinaa ko jaayante comme ni Moussa def ak xudar rek mu ne ko ba tey munoo koo matale waaye ji dëgër bopp mu ne ko léegi pour ma jox la ko dama lay testé yow léegi boo génnee demal soo wàññeeku see fii ak waxtu sàngam lépp loo gis boo ñëwee nga nettali ma ko. Mhm. yàlla nattu ko mu génn. Mhm. dajeeg gaa yi ñu naan eaux et forêt. waaw eaux et forêt yi gis benn paa màgget. Mhm. yor ay matt yoo xam ne da koo dajale for ko mooy yi wadd noonu. pour bu demee jaay ko am ci lu mu dundal njabootam. eaux et forêt yi nangu bant yi paa yoroon dóor ko ba noppi dàq ko ci àll bi. waa ji bi mu gisee loolu xolam tàng. mu ne man nag li tax ma doon wëri ismulaayil axsam bu nekkoon benn la tey dinaa ci dogu téeméer mbaa fukk ndax lii ma gis naqari na ma màgget mii nga xam ne amul dara ci lii la yaakaar ngir dund ñii jaay ko doole nangu lim yoroon ba noppi duma ko. man su ma yoroon Ismulaayil Azam ki ko dóor danaa ko rey rey ay mbokkam ba noppi yëkkati lu gën liñ ko jox jox ko. kon yaa ngi gis moom mu ngi àtte ci côté xelam. mais ba tey xamut programme suñu borom. logique xamut loolu. Mhm. bi delloo ci ki mu doon laajte Ismulaayil Azam ba muy sëriñ ba. Mhm. sëñ bi ne ko lan nga gis mu ne ko li ma gis daf maa naqari te dina tax ba man li ma doon sàkkoo jaayante ko yow benn ma jaayante ko fukk ba nga jox ma li nga amee. dëgg la mu ne ko lan nga gis ne ko damaa gis benn màgget boo xamante ne. Mhm. mënulul boppam dara ay matt rek lay for bu demee di ko jaayaat. Mhm. lu mu ci am moom mu jël ko dem dundal ci njabootam. Mhm. eaux jàpp ko dóor ko dóor jël bant yi yoroon sànni ko ba noppi daal di koy dàq. loolu moo ma naqari ba tax ma bëgg jox ma ismu laayal axzam ngir ma jaayante. waaye ñu ne ko nag li taxoon may la yow lii ma yor munoo koo jot ndax benn mooy kii nga fekk ñu def ko loolu man moo ma tarbiya ba jox ma ko. yaa ngi dégg wax ji yaa ngi dégg wax ji. <laughs> kon da gis ne maanaam parfois. muñ mi waaw muñ muñ bi patience bi xam nga muñ boo demee ci Masaalikul Jinaan sëñ Touba daf ko divisé daf ko teg en neuf degré. Mhm. trois cent trois cent trois cent. Mhm. bi njëkk bi. Mhm. mooy nga muñ li la yàlla digal. li la yàlla digal. ak li la tere nga bàyyi ko. loolu nga muñ ko. parce que neexul. Mhm. ñu ngi tarbiya sa bakkan naa ah, lislaam da lay tarbiya da lay defar effectivement digal yeeg tere yi mhm. sa bakken la ñuy defar mhm. muy première phase bi boo ko bàyyee da am trois cent degré deuxième muñ bi xam nga mooy lan doo fayu doo fayantoo lu ñaaw loolu waaye def ci lu ñaaw lu bon doo fayu doo nga muñ ko boobu boo ko assurée di nga am six cent degré mu desaat beneen 300. beneen 300 bi lu yàlla dogal mu neex la. ci ma xam alhamdulilah. ah boobu ne moo kawe lépp moom. nga am na sant. Mhm. jëwriñ ba tey duñ génn Cheikh Ibra ah, ndax euh, enrifoone yu góor yàlla yi dañuy wax naan dafa am ñaari dox mhm. yu góor yàlla bi di dox ci yàlla mhm. ñu ne premier dox bi moom lañ naan sayru la mooy jaam bi dox bi muy dox dem ci boromam ñu ne nag bu demee ba yegg ci boromam. Mhm. dafa am beneen dox bu muy doxaat moom lañ naan sayru fillah dox gi muy dox ci biir yàlla. waaw ñu ne ñaar yooyu nag dafa laaj tàqale. ndax dox bi ci jiitu ba. Mhm. mu ngi mel ni tey ci misaal. nga mhm. jóge fii war a dem Touba. xam nga mën ngaa fay mille francs dugg ci bii si dem. moo lay yóbbu ba nga yegg Touba. mais boo yeggee garage. diggante garage. ak kër sëriñ ba fa nga jëm. mën ngaa fay lu ëpp doole 3000 yi nga fayoon. ndax bu ngay jël mën nga kaa fay sax junni. waaw te ñaar yëpp dox la. mais benn bokk ci ak góor yàlla yi nag déggee ci na. maanaam nit ki am na yoon bu mu war a jaar pour dem ci boromam. waaye ba mu demee ba yeggaat ci boromam encore. am na beneen dox bu mu war a doxaat ci yàlla te dox boobu mu war a doxaat ci biir yàlla lim laaj ci dëgër. ak lim laaj ci kàttan ak pëseef mooy ëpp doole foofu lam doxoon balaa moo dikk. ndax dañ ne gën a jege gën a yey. ana tey lan nga ñuy indil ci loolu ndax tey ñu bari. dañuy soobu di dox. ba xëy góorgóorlu di tudd seen borom di màggal di sellal di góorgóorlu ba xëy rek am fatxu. su ñu amee fatxu nag jàppoon ne maanaam fii la xam-xam yem. fekk fatxu du maari fa am na lu ko féete kaw parce que nit ki bu amee fatxu dafa war a góorgóorlu dox ci yàlla ba am maarifatu billaa ndax loolu mooy tax mu am le sens de discernement. mën a xam mën a xàmmee. ana tey lan ngay indi ci loolu jëriñ. xam nga tey jii yàlla lan la tàggee woon yonent yàlla Muhammad ci jikko wa innaka ala xuluqin aziim te jikkoy sunu boroom yëpp. Mouhamed mm-hmm. moo ko incarné. Mm-hmm. Mm-hmm. yaa ngi dégg wax ji. parce que yoon wi. gëm la. jub. xam. gëm. jub charia xam jeex ci yàlla la sëñ Tuubaa naan wax lam bi an al fatxa wal anwaara wa zuxdu wal irfaana wal asraara yaa ngi dégg wax ji yàlla amul fu mu yem amul yemu fan la nit ki war a mën a yem ba ne jeexal naa suñu borom déedéet moom koy foo ceem yaa fa yemale sa bopp jikkoy sunu jikkoy yonent bi yëpp. Hmm. jikko yu rafet yi. Hmm. est-ce que nit ki mën na mën na ko matal ci kaw suuf yëpp. déedéet. Hmm? déedéet. ay jéem koy bu soo doole yam rek. donc cela veut dire que. xam nga sànq maa ngi lay wax ne kàddu sunu borom yëpp am na ñeenti. maxaama mm-hmm. mooy riwaayatu bi mm-hmm. deuxième degré bi mooy symbole bi mm-hmm. bi ci des mooy essence bi mais sirr bi c'est incommunicable kenn mënu la ko kenn mënu ko il est condamné d'être secret kenn mënu ko wax loolu ñu fa ak dëgg la parce que yonent bi sallallahu alayhi ñetti xam-xam la ko yàlla jox est que yaa ngi dégg wax ji nee na ko bii bokk koog ñëpp bii xoolal ñu ko antan bii nag boo kenn jox xam nga gars yi dañuy jaawale maarifa ak tawhid bokkul déedéet ba tey bokkul. charia ak maxrifa bokkul. déedéet. boo gëmee yàlla. Hmm. après da ngay dox ci charia. Hmm. mooy jub. Hmm. boo demee ba am charia. ba jub ba sax ba kenn dal. après nga am nga wuti maxrifa. xam nga ba léegi yaa ngi ci jëf. yëpp ay jëf la. maarifa moo lay mën a permetre nga sellal say jëf. Mhm. bu jëf ji sellee nag nga war a dox dem ci yàlla nag jeex ci yàlla dem ba nekk lenn ak moom mhm. kooku beneen dox la mhm. dem ba yàlla doon sa lépp xam nga foofu tarbiya bi indi ko amarati bi soo yi al amaaratu al lawhaamatu al mulhamatu mutmaina raadiyatu mardiyatu an nafsul kaamil léegi kaamilan boobu kan moo ko mën a déterminer kaamilan nii lay mel te kaamilan boo fa demee mooy multicolore mooy njaxas bi melokaanum mm-hmm. sunu boroom yëpp ngay dajale mm-hmm. njaxas a ngi foofu parce que bakkan boo ci toll rek am nga couleur bu mu correspondel waaw dañ ne bakkan bu ne am na melo am na melo mm-hmm. am mais boo demee ba ci kaamil dafa boole mbooleen melo kooku ko mën a xàmmee ci jaam yi beneen dimension la parce que lépp génn ñu woon ci Cheikh Rafal ba ñu nekkee ci xadar yoonu Cheikh Rafal lañ lay woon la la yàlla di jàngal yoonu mm-hmm. axixatu mm-hmm. la la yàlla di jàngal ci xudar ak Muusa mm-hmm. parce que gars yi dañuy jaawale chariatu ak maarifatu ak tawhid bokkul est que yaa ngi dégg wax ji dëgg la mais xudar ba mu dafa ne Muusa balaa ma lay bàyyi nga dem dinaa la expliquer cause bi tax ma doon def yooyu. mu ne ko gaal gi ma bënn mu ne ko naam mu ne ko dafa am ñaar ñi ciy liggéey. njaboot lañ boo xamante dañu am treize personnes. wala quatorze personnes yoo xamante ni quasi ñëpp dañoo am feebaru gaana ñaar rek ñoo ci am ay cër yu mag di liggéey di dundal ñeneen ñi. te biir géej gi dafa am buur boo xamante ne bu gisee gaal gu baax day rey ñi nekk ci biir jël gaal gi mm-hmm. sunu borom xamal ma loolu ma doon yàqate gaal gi ngir di ko bënn pour góor bi bu ñëwee gis ni gaal gi baaxul bàyyi ji ñu jàll mm-hmm. est-ce que te Moussa xamut loolu mm-hmm. <laughs> mu ne ko xale bi ma rey et puis dafa ne ko musaa yow yow maa ngi ci gaal gi yaa ngi ci gaal gi maa ngi bënn gaal gi yaa ma gën a bëgg a dund yow <laughs> jar naa laaj moos question philosophique la ko laaj raison waaw ne mhm. <laughs> ko est-ce que yaa ngi réfléchir quoi mhm. effectivement comprendre nga dëgg la ñu dem mu ne ko xale bi ma rey mu ne mhm. ko mu ne ko ay waajuram dañoo nekk ay jullit ñu gëm yàlla lañ te xale bi kéeféer dafa nekk ci xolom waaw te bu màggee dina woote beneen diine bu dul diine yàlla te waajur yi bëgg gi ñu ko bëgg dinañ ko dem ba topp ko ci mbëggeel ci ci ci ci diineem boobu te su boobaa ñoom ñett bu ñu dee safara lañ jëm looloo tax ma ne nañu ko ma ne yàlla xamal ma loolu ma ne naa ko rey mhm. bu ko defee comme amagul bàkkaar bu ko defee ma sobee ko sobee ay waajuram tey <laughs> mu ne ko miir bi ma daaneel mu ne ko naa mu ne ko dafa am ñaari miskin yu nekk ci dëkk bi seeni waajur ñu baax la ñu woon mais seeni dono mhm. la ñu denc ci suufu miir bi te miir bi bu daanoo waa dëkk bi di dañ gis ndono mi te su boobaa dañuy jël xaalis boobu mhm. alal jooju moo tax ma ne nañ jubbantiwaat miir bi xam ne kon moom li mu doon jëf yëpp am na lu làq ci ginnaaw yàlla moo koy xamal muy jëf ne ko li ma def yëpp jëfuma ci benn ci sama coobare bopp yàlla maan ma moo may xamal cause bi ne ma hmm. jëfal ma lii ma jëfal ko parce que ci départ ba tam boo demee ci alxuraan loolu la yàlla wax fa wajada abdan min ibadina atina o rahmatan min indina wa ahlamna o min la dunna ilman très bien ak mooy xam-xam bi mu xamee man yàlla saa borom maa ko xamal loolu la naa xam-xam moo li nga yéree génne ko ci kayit ak li nga xamante ne yàllaa la koy yëgal moom li sëñ Tuubaa doon wax naan al ilmu laa bil kasratil riwaaya bal innahu nuuru maa diraaya kuy yër di wax ak kuy yëg di wax di wax kon Cheikh Rafal dafay mel ni ku mënta yëg rek maanu ci ay mbiram ndax branchement la yoon boobu ndax yoon yoon boobu la ñu doon won mhm. yoonu ak xaa ngi noonu vérité mhm. Mhm. mooy ñi nga xamante ni ñooñu mooy mooy góoru yàlla yi nga xamante ne ñoom la ñuy tuddee les amoureux mooy ñi bëgg yàlla yàlla bëgg leen ñooñu ñooy wéttali yàlla ñooñu ñooy dund seen cause existence ñu seen rapport ak seen borom amatul intérêt moo tax nit ñi war nañoo tey ci ak Baye Fall de leneen la Cheikh Fall troisième dimension boobu la doon dund dafa fekk mu loo xamante ni dafa am euh, Rumi hmm. sam su mooy sëriñam hmm. Samsa ba mu demee ba àgg ci yàlla dafa ñaan yàlla ne ko wan ma sa xarit ma wan ma koo bëgg ma dem liggéeyal ko ndax nga bëgg ma. tey. Hmm. wan ma koo bëgg. Hmm. ma dem liggéeyal ko. ndax nga bëgg ma ndax nga bëgg ma. tey. yàlla joxoñ ko ruumi. Hmm. Samsa dem jaayante ak ruumi. di liggéeyal ruumi. fekk ruumi boobu mi ngi nekk imam. ñépp wër ko mu nekk ku célèbre. mu laaj ko. Hmm. ne ko bu mu ko interpeller hmm. ne ko yonent yàlla Muhammad ak Bayezid Bestami kan moo kan moo ëpp maxaama. Hmm. Roomi ne ko yow wér nga. lu toll ni yonent. Bayezid Bestami di wàlliw. ngay laaj yonent ak wàlliw ko ëpp maxaama. mu ne ko lan moo tax yonent di tuub ci kanamu yàlla. ngir ñàkk gi mu ko ñàkk xam dëgg-dëgg. te Bézi Bessa mi taxaw ne kuy wër yàlla ñëwal seet ko mu ngi fii sama poos. tey. Mhm. ruub boobu boo koy déglu nii ci saayir mhm. da yaakaar ni ki yàlla mi ngi ci poosam moo ëpp ma xaama yonent bi. fekk ko ëpp ma xaama foofu. foofu. Mhm. ruumi yàlla dimbali ko. mu xalaat fikara. fikara xalaat. yàlla dimbali ko mu gis. Mm. parce que boobu fekk na ko mu am maxrifa mu xam yàlla mm-hmm. te musul woon xalaat ci kàddu yooyu mm. mu ne sams loolu bu koy bu ko loolu bu xewee mm. dafa fekk ni leeru yàlla géej la te xol boo gis ndabal sunu boroom la mm-hmm. te kenn ku ci nekk da ngay duy ci ci géej gi selon sa ndab nu mu toll mm-hmm. bay si besta mi ndabam laa ndaw dañ cee duy tuuti mu fees dell moo tax mu dàggali ko sagom di jaay ne kuy seet yàlla seet ko sama poos <laughs> boobu fekkoon na yeneen yi ñoom mandi nañ ci yàlla bay tuub ci maqaama bañ nekkoon di yokk bay tuub ndax parce que gis nañ ñoom mënuñu naan géej gi yëpp mm-hmm. di tuubal seen borom ci ñàkk gi ñàkk mat pour mën a naan ci leer gi la maximum possible tëtëtëtët moo tax ñu ne ndeysaan jàmm bi saa yoo xamee boromam dafa am geneen tuub gu muy tuub bu bokkul ak tuub bu njëkk ba mais bàkkaaru ko xam yàlla ak bàkkaaru ko xamul yàlla bokkul bàkkaaru yonent ak bàkkaaru wàllu ak bàkkaaru jaam kese bokkuñu bokkuñu dëgg la xam nga problème bi mooy que ne waaraatekat yi ak jàngalekatu diine yi ñoo jël boxeur yëpp def leen ci même ring ring. waaw oh. séparé luñ poids lourd poids lourd poids léger ak. waxal waay Ndiass waxal waay barki sëñ Bamba <laughs> parce que li tax moo ko mooy yàlla dane Muhammad inna fatahnaa laka fathan mubiinan li yaxfira laka llaahu maa taqaddu min zanbika wa maa taaxara. waaw mu ne ko tijji naa la man yàlla tijji bu biir. ngir jéggal la sa baakaar yu njëkk ak yu mujj. te yonent sallallahu alayhi wa sallam nee yàlla laabal na ko ci ak bokkaale bàkkaar te musa def bàkkaar waaw kon bàkkaar yooyu yan bàkkaar la ah, Moussa tamit ngay wëlbatiku gisaat bi mu ne yàlla dama laa bëgg a gis waaw rabbi arini unzur ilayka la Moussa wax fa nistaqara maqaanahu fa sawfa a falamaa tajala rabbuhu ilal jabal jaxaloo daqan waxara Moussa saxihan falamaa afaaqa xaala subhaanaka inni tubtu ilayka bi Moussa ximmili ko li mu ko wax mooy yàlla maa ngi lay sellal sellal naa sa màgg gi maa ngi lay tuubal te Moussa woon benn bàkkaaru sharia bu tax moo doon tuubal boromam kon loolu c'est à méditer kon ñoom dangay gis ne kon bàkkaar yi ñu doon tuub du bàkkaaru charian voyage voyage bi bi siraatal lu mu sax la ay station la saa yu seen lu ñu gën a xam seen borom rek gën a tuubalaat seen borom ci liñ ko foogee woon ak fañ ko fekk xanaa déggoo sama sang lu ma Cheikh Moussa Touré nee na yoonu yàlla bi fu yoonu yam rek yoon tàmbalee na fa ak kasa mhm. effectivement waaw ah, parce que maxaama gu ne am na maxaama bu ko tiim yeneen bi ba mu faatoo kan moo doon mantoom Aboubacar. déedéet. ah manteau bi mu yoroon. waaw ku ko doon. kenn ci saxaaba yi doon na ko. Mhm. ku ñuy wax Véez ni moo ko donn mhm. te mës na gisanteeg yonent bi ci saayir. ah waysul xarnu. moo ko donn ak kasa. parce bi joxoon na Seydina Omar. ak Seydina Ali. pour ñu yóbbu ko manto ne leen jox leen ko mu barkeeloo ko te na ngeen sàkku ci moom mu ñaanal non na ñaanal sama xeet ñaanal xeet ci moom ñaan waaw te ñoom ñaar mosuñu gisante te mosuñoo gisante ci saayir te fu mu toog da daan wax naan xetu yàlla mu ngi may xeeñ ca wetu yemen jóge yemen di ñëw mhm. te mosuñu gisante yenente bi Omar ak Alioune di ko gis ñu ne ko nu mel mu ne daa defi njeeñ mhm. sol yi njaxas mhm. takk ceinture bu rëy ci ndigg li seet tët tët saarafaaloon mbokk <laughs> ba pare digg loxo bi daa mais du heure leer la. xam nga loolu day tegtale li Cheikh Ibrahima doon wax. Hmm. daa am kàddu bu rëy bu mu waxoon. mu ne woon doom ku mus a ñëw jamono gunge naa la. mu ne bariwaana bërëb bu nit di toog di fa ñaan aajoom di faju bu ñëwoon biir Touba diingat ma te yëgul ne kay faj ca barab aajoom ca barab boobu man la. te yàlla wax na lool ci alxuraan ndax Cheikh Rafal léppam dees koy lay ba mu leer nañ. ndax am na nooy waxee rek dañ naan waa ci ay alam la nekk di wax ak dañoo daanu ay jël mais boo demee ci ci cent vingt troisième aaya bi mhm. yàlla mu ngi wax lu mel noonu dane mhm. aw man kaana mayitan mhm. fa axyaa naa um wa jaal naa lahu nuuran yamshi bihi fii naasi kaman masaalahu fi bi xaarijin ma neexee um, ma dekkalaat ki ma rayoon waja al naa loxoo nooran yam si bihi fii naa si ma yëkkati leer jox ko ne ko dee ko doxee ci biir nit ñi kon nag Cheikh Rafaal gis nga ray googu du ray guy toxal sax jëmm ji am na ñaari dee mhm. bu dee deewuk saar gi mun nga koo firee jëmm ji day dem di dellu waaye bu dee deewuk ba euh, euh, dee gi ci baatin dañ koy déggee deewuk maanaa mhm. mooy nit ki niñ koy reye ci boppam li yonent bi doon wax naan muutu xablaan tamut ba dekkilaat ko ci yàlla ba dootu fi yëg ñaar lenn képp la fiy yëg waaye boo ko solalaatee Cheikh Rahane Fall bu doon mbubb da ngay gis ne da koy yeb képp ndax nee na fukki ndey ak ñett la seen mu njaay ma mu jee jur kon fukki ndey ak ñaare ñan la ak ci ban xërnu la feeñoon ak ban melo la fa feeñoon kon musu fee ñàkk jóg waaye nag mais nit ñee ko dul ràññee ndax bu buy muy sol ñooy wuute Cheikh Rahane Fall am na doomam bu mu tuddee Seydina Aliou Seydina Aliou Fall ma war xam nga lan moo tax mu tuddee ko ko hmm. xamoo ko mu ne am ak doolee ku jël dafa bokkoon ci ñi wàccoon xare ba Badar mhm. ngir jàppale yonent mhm. Seydina Ali ràññee ko parce que da daan gis mhm. ne ko tudd mu def ni poxataan bi gis ñu bi bind ci aboori jàllu laay <laughs> ba góor yàlla yi mu ne ko bu ma fàtte faa ngi fasanteex yow kóllëre kóllëre la doon firndeel fii moo tax mu tuddee ko Seydina Ali kooku dimension la dafa am dafa am yenn taarix yoo xamante ni pratiquement loo mënul vérifié indi concret koo bokkulul gëm-gëm doo ko wax da nga koy parce que parfois nit ki lim gëm pour mu waxee ko day jafe waxee li nga xam mooy gën a yomb waxee li nga gëm indi góor yàlla yi indi loo xamante ni dañ koy vérité ci alxuraan ak sunna waaw ah, mooy waxee li nga xam mais pas li nga gëm parce que li nga gëm kawe na li ngay wax dimension la parce que wees xoree ni googu Omar ak Aline ba ñu demee jiis ko dañ hmm. demee ci dëkk bi leen yonent bi dañoo laajte dëkk bi yëpp ñu ne leen kooku dëkku fi hmm. ñu ne la Omar xam nga Omar ak sañ mu ne yonent bi waxam du wuute. Mm. ba mu insisté ñu ne ko kenn moo des ci dëkk bi te ñu ne ko mais ab dof la. mu ne lu tax ngeen dof la mu ne parce que bu nit juddoo. ñëpp mm. bëgg moom day jooy. Hmm. bu nit deewee ñëpp di jooy moom day reetaan day bëgg. seet xoolal ñaari xaal yooyu. <laughs> Mm-hmm. ñu ne fan lañ fun dëkk ñu ne benn yoon lay dugg si ci dëkk bi. Hmm. te mburu lay jënd te bu duggee ci dëkk bi xale yi dañ koy topp di ko sànni xel te moom loolu lay bëggee danaan sànni leen ma sànni leen ma comprendre nga mm-hmm. torture boobu mm-hmm. ñu tegtal ko fa mu nekk ñu dem fekk ko muy julli ñu nuyoo mu sëlmal julli bi ñu ne ko yonent bi moo ñu yónni mën a leen lu mu wax mm-hmm. ñu ne nee nañ mantom bi nga sol ko te jég ñaanal xeetam ñaanal mën a leen yow da ngeen juum ne yonent bi waxul ma Omar ne ko tàllalal loxo yi mu tàllal loxo mu gis heure bi mu ne ko melokaan yëpp mën na yow la yonent bi wax mu jël manto bi dandu tuuti te tëral ko taxaw di julli hmm. julli yi xaaw a yàgg hmm. gaa yi yëngu parce que dañoo bëggoon a dellu hmm. foofu tamit mu ngi fay jàngalewaat waat taalibe parce que dañoo war a xam nga léeg-léeg nga dem seeti sang mu teg la ci benn bërëb lu yàgg ak na fa est-ce que yaa ngi dégg wax mu sëlmal ñu ne ko dañoo bëgg dellu julli yi daa yàgg mu ne leen dama doon ñaani yàlla bu jéggalul xeetu yonent bi yëpp du sol manto bi mais rax ko bu ma def yàlla yu may ma lu tolla soixante dix mille waroon dem sawara ma yóbbu leen àjjana laa te bu xeet bi yëpp jeexul woon du ma sëlmal gaa yi ne ko lan moo tax ñëw siyaara si yonent bi mu ne leen yéen gis ngeen yonent bi gaa ne ko waaw mu ne leen yéen gisu leen yonent bi bi wàccul ci kaw suuf takkandeeram ngeen gis takkandeeram ngeen gis cey gaa yi laajte ko ba Seydina Aboubacar <laughs> mooy leen gis. mu ne kenn gis ko yonent bi wàccul ci kaw suuf. Mhm. ñu ne ko yow gis nga ko mu ne waaw topp naa ko ci leer yàlla bi. Mhm. topp naa leer gi. Mhm. ba mu desal ma soixante dix mille. voile de lumière. kiiraay waaw. te voile bu ma ci jege woon moom damay damay anéantiru ma taxaw. mu ne gaa yi. siñ leen gaa yi siñ. seen bëñ yëpp mat. mu ne leen ba ñuy dóor yonent bi bay damm bëñam xare waxut fu ngeen nekkoon gaa yi xoolante mu ne leen mu mu daal di siiñ nii ne man keroog ba ñu dóoree yonent bi ba dindi ba damm bëñ man ci laa dindi sama bëñ yëpp ngir bëgg gi ma bëgg yonent la ilaha illallah gaa yi ne ko digal ñu hmm. mu ne leen du xam ngeen yàlla ñu ne ko hmm. waaw mu ne leen bu leen jaami xamul lu mu leen di wàññi Serap taxawul foofu. waaye moom koy déggoo moom Cheikh Ibrahima. jaam yi ko réeree yëpp. Hmm. ba tax ñu yóbbu ko safara ñu def ko yéefar. Serap hmm. Fall leen boppam parce que ki muy jëflanteel xam na ko muy yàlla. ek kaso yëkkun tey. comprendre moom moom Fall. mu ne leen bu leen jaam yi xamul lu mu leen di wàññi. Hmm. yaa ko ne ko ñaanal ñu mu ne ñaanal naa jullit ñëpp bu ngeen téye seen gëm ba faatu. yéen a ci biir ñaan gi. waaye bu ngeen fexee ba ba ñàkk seen gëm <laughs> kenn mënatu leen ñaanal. gars yi tàggoo dem jub tegtal la ngi noonu. tegtal bu wóor nga koy mu ngi noonu ci ñi am ne am na ñu xel di xalaat ñi am seetlu. donc indil naa la yoonu tasawuf ci biir alxuraan. muy mm-hmm. Moussa ak Xudar. Mm-hmm. indi la yoonu tasawuf ci sunna yonent bi xam Muhammad te loolu hadis la. Mm-hmm. gars yi dund nañ ko. ñu ne ko lan moo tax ñëw siyaara ji yonent bi mu ne sama waajur wu góor. sama waajur wu jigéen jigéen moom la doon toppatoo. silmaxa la. te mënta dox. te li muy dundee man maa koy liggéey. mënuma ko woon bàyyi fii dem di seeti. yonent bi yonent bi ndaxte maa koy dundal. looloo ma looloo lu gàllankoor boobu laa amoon. moo ko tee dem. mais ba waajuram bu jigéen wàccee liggéey. bokk na ci saxaaba yi doon yi dem fekk abu Aboubacar fekk na yonent bi jógee. deewee ci tooru xale. jihaad mais li gën a doy waar ci waxam. maa sax duñ fa taxaw ndax waxtu bi ñu ngi commencé <laughs> mais li gën a doy waar wax ji. Uh-huh. nga xamante ne nit ñi peut-être que parfois xaw ma ngi ciy bàyyi xelam uh-huh. mooy bi leen ne yéen gisoo leen ko. waaw takkandeeram ngeen gis ñu ne ko xattaa Seydina Aboubacar mi nga xam ne dañ ne mooy Seydul Arifina mooy leen gisu ko takkandeeram la gis. te xam nga sëñ Tuba am na lu garaaw lu mu wax foofu. waaw nee na looyaru yonent yàlla Muhammad ñu ne ko naan mu ne bu doon géej la moom naan na géej gi ba géej gi fer ba suuf si fett te tërëful. la ilaha illallah. moom sëñ Tuba moom taxul ñuy wax kooku leneen la am la taxaw ne ku yàlla ak yonent bi tax ñu bind ma man ump naa la kon xam nga nit ñi dañoo mënta def discernement entre Muhammadu ibnu Abdullahi ak Amina ak Muhammadu rasulullahi ndax Muhammad sol na fi ñetti mbubb yu bokkul mhm. njëkk na fee sol mbubb Muhammad ibnu Abdullahi mhm. ak Amina mhm. mu jëflanteeg waa Màkka lu tax ñu wóolu ko ñoo koy ko mbubb ak al amin ku ñu wóolu ki mu dem ba am yàlla fekk ko xaaru hira def ci moom la mu def ci moom def ko yonent ne ko wowal gaa yi yóbbu leen ci njub waaw nga gisaat ne foofu sol na fa mbubbuk rasulullahi mhm. ñetti mbubb yi nag mhm. ba tey bokkul ak xaqiqatu moom la mu doon ba noppi aju ci suñu borom te feeñut ci kaw suuf ndax yàlla ba muy wax ci xaddisul utsi bi dane fa taaraftu ilayhim fa bii nii ma daal di won ma daal di leen won sama bopp ngeen xamee ma ci sama bopp mais sama bopp boobu boo ko doon firi dëgg-dëgg mooy Muhammad parce que damay ñëw fa bii yaarifoon yi fa bii yaari yaarifoon yi ci kooku la ñuy xamee yàlla mhm. léegi nag gars yi dañ naan foofu foog nga jël valeur numérique yi pour nga mën a comprendre kàddug suñu borom parce que loolu xadiisul si la mhm. fa bii fa booy xool valeur numérique am quatre-vingt la mhm. bii valeur numérique am douze la parce que baa bi deux la ak yaa bi muy dix kon da ngay gis ne fa bii boo ko adadee saatu doon quatre-vingt-douze kon li muy tegtale mooy ci Muhammad la ñuy xamee yàlla. Muhammad kenn mënu koo jéggi dem ci yàlla. déedéet keroog yaa ngi koy junj ci biir waxtaan wi sax waaye dama bëggoon ñu bàyyi ko noonu muy bunt boo xam ne après bu ñu ñëwee jëm ni jamono. gën cee duggaat dafa am tur yoo xam indi woo ko. Mm-hmm. Muhammad bi Amina jur ak Abdallah. Mm-hmm. ak Muhammadu Rasulullah ki yàlla yoon yónni ngir mu jottali. Mm-hmm. message message bi. Mhm. bokkut ak Mohamed bi nga xamante ni moo war a jiite jaam yóbbu moo nekk wasila nekk sëriñ. nekk sëriñ. Mhm. loolu nag dina am buntu boppam boo xamante ni bokkut ak Mohamed bi nga xamante ni. Mhm. Ahmad ba nga xamante mooy leer sunu borom bi yàlla njëkk bind nga xamante ni leer yëpp ñu ngi leen bindee ci leeru Mohamed tam. xam nga am na benn addis yonent bi fu yonent bi waxee ni sama xeet hmm. am na ci samay wàllu yoo xamante ni seen maxaama toll na ni maxaama yonent band Israël yëpp waaw hmm. te nee nañ ba muy dem reñaan ci kaw hmm. Moussa laaj na ko loolu fu mu ko teg asamaan bi Moussa nekk ruuxu xasaali moo ñëw ruuxu xasaali moo ñëw effectivement xasaali Moussa ne ko yow yaay kan mu ne ko maay Mouhamadu ibnu Mouhamadu ibnu Mouhamadu ibnu mu ne ko Moussa ne ko sa teggi ñaaw na ci suma xadra mm. parce que benn kàddu laa la laaj nga bëgguma tontu ay kàddu yi mm. xasaali ne ko dama lay roy mm. mu ne ko ci lan mu ne ko bala yàlla laajee loo yor da nga ko yat bi laa yor moom laay sàmmee moom laay wëggee moom laay moom laay wëggee Moussa ne ko waaw parce que yàlla booy wax ak moom kàddu bi lu mu gën a gudd mm-hmm. sama xam di gën a yéeg ndeysaan mu ne ko waaw ah, yow yonent nga te man sama kàddox yow lu a gudd sama maxaama di ko yat bi ne eh, dafa indaale fi ko muus fi kon nag loolu day dëggal xadis mais hadis boobu Mansour El moo ko firi mm-hmm. nag laa mu ne leen boo mm-hmm. demee ci pays yàlla ji mm-hmm. yonent bi jigéen la fa ak boo demee ci payib suñ borom bi. mu ne jigéen la fa. Mhm. ah nee weenu ndeyjooram ci la mhm. nàmpal. Mhm. yonent yëpp. weeñu càmmooñ bi ci la nàmpal ay wàllu yóob. ween yi ñoo wuute mais meew bi ñu naan benn la. ah mais ndox mi wàcc ci kaani safal ko. ndox moom moo wàcc ñam bi suukar suukar ko yaa ngi dégg wax ji cela veut dire que Mouhamadou Rasul kooku multidimensionnel la mhm. parce que ñun suñu dund ñaari phase la sëñ mhm. Tuubaa sax mi ngi ko aadama bu njëkk ga ak aadama gu mujj gi bokkul mhm. jëwriñ xam naa ni moom suñu waxtaan ci Cheikh Ibra day am première partie ak deuxième partie ndax fi mu ne gars yi mooy signalé waxtu bi euh. Euh, waaye nag li ma indi woon ci ay kàddu maanaam ci ay bunt yu ñu war a waxtaan dafa bari de laa la goo ci sax a la goo ci dara ndax fi ne boo xoolee waroon nañ mun a dugg ci euh, Cheikh Ibra ak tarbiya mhm. dugg ci Cheikh Ibra ak sikar méthodam méthodam ba pare dugg ci Cheikh Ibra fi mu jaar ba làkk ngërëmal yàlla mais yooyu dañ koy tegee nii pour jëmmi jamono mais nag euh, mënuñu waxtaan ba daaneel mhm. te boo xoolee ñun maanaam suñu jotaay lu ci bari ñu koy toog mhm. parfois dañuy xaar ci ay actualité waaw maanaam à chaque fois jamono lépp lu xew rek dañuy bëgg nga sànni sa kàddu te boo xoolee fi ne actualité bi nga xamante ne daanaka moo polier média bi yëpp. Mhm. mooy déclaration wu président de la république Macky Sall démb. parce que euh, def na déclaration wax ne moom troisième candidature du ko déposer. Mhm. léegi nag reste à savoir lan mooy ñëw xew ndax jàpp nañ ni bu génnee daa war a organiser élection yoo xam ne ce sera libre transparent et inclusive. Mhm. wañam xàddi ak du am xaaj ak seen waaw du tàbbi xam naa nag loolu mooy nekk kàddu tàggatoo gi <laughs> yéeme na de bu nga dugg foofu eh, ñu soog a tàggatoo mbokk taali waaw ñun mm-hmm. de comme ni nga ko waxee mm-hmm. démb ba kilifa gi mm-hmm. Macky Sall di def discoursam ndeysaan toog nañu déglu ko teewlu ko waaye ay kat bon ñu ngi koy féliciter di ko remercier ci li mu wax moom nee buggul te buggul wuute ak kàddoom. mu hmm. buggul wuute ak kàddoom. dëgg la moo tax mu. désisté hmm. mu renoncé renoncé troisième hmm. mais damaa yaakaaroon ni dafa waroon wax. la Senghor la sëñ Abdou Lahad waxoon. Senghor ne ko war ngaa sant peuple bi. peuple bi war nañ laa sant. mais mm-hmm. yow it war ngaa sant bu la peuple bi santee ñaar yow war ngaa sant peuple bi fukk. Mm-hmm. ndax dañoo jël seen lépp jox la. dëgg la sa dara manqué wul. Mm-hmm. <laughs> ngir nga liggéeyal leen. donc yow yaa war a sant peuple bi. ndaxte. xam nga man mille 2011. Hmm. émeutes yi fi amoon. Hmm. non au troisième mandat bu Ablaye Wade bi dafa tombé woon ndax ma jógee Italie ñëw fii. Hmm. suivi événement fii yëpp. boo xoolee cause troisième candidature bi la woon ko troisième mandat bi. bon affaire yi jaxasoo. ñun ñëpp xalaatuñu woon ni Macky Sall moom mooy ñëw nekk président. mais au moins on avait une système électoral bu transparent bu équilibré ba nga xamante ni. organisation libre et indépendant lañ doon demandé Ablaye Wade ba mu pour mu am cohésion sociale. Mhm. mu créer benn kii privé ñuy organiser. parce que bi Ousmane Ngom naree organiser élection yi à l' époque il ministre de l' intérieur. gars yi ne carrément duñ nangu sa ministre de l' intérieur organiser. opposition bi te Macky mhm. Sall ci opposition bi mhm. ma après Ablaye Wade il organiser mu ñàkk. mu dem noblement. yi ñëw. peut-être que Ablaye Wade bu fekkoon ne am na yenn intention yoo xam ne c'est non démocratique. kon mm. Macky du participer sax ci élection yooyu. dëgg la. Mm-hmm. tu mm-hmm. yàlla dogal mu jël présidence bi. Mm. mais li ma ci jaaxal mooy que. Mm. lañ doon xeex ci jamonoy Ablaye Wade yëpp moom lañ continuer di xeex ci jamono Macky Sall pour am ko. c'est un peu. Mm-hmm. c'est dafa mel nii avancé wuñ mais dañ dellu ginnaaw. non ñun koy amuñu benn avancement kay ci loolu. bon. Hmm. instance yi ñu toll nii Sénégal mooy. Hmm. moo ñu ñor ko. Hmm. te bu ñuy jël yenn décision yi. na bañ a gaañ Sénégal. xam nga Sénégal dafa nekk benn genre ndey ndey boo xamante ni. imagine toi bu doon jigéen boo xamante ni fees na dell ak meew bu mën a dundal doomam yëpp. mais doom yi jotuñ ci meew mi. xam nga lu tax. Hmm. parce que dafa am cancer. c'est moom ndey ji moom cancer. waaw te ndey ji mooy Sénégal. waaw te moom mi mooy xéewal gi ñu war a dundee ñun. waaw ba pare ñaari ween yi ci la ñu war a nàmp. mais hmm. ween yi dafa am. cancer ba nga xamante ne mënuñu jot ci meew bi. te cancer boobu mooy la France. Hmm. ak la coalition politico-religieuse. parce que ñu ci ëpp des fois. seen intérêt individuel da leen di yóbbu ba ñu fàtte le peuple. fàtte l' intérêt général. te ñoom dañuy jàll wàcc fi Sénégal wàcc fi peuple bi. ndeysaan. mais des fois dafay laaj nga déglu sa peuple. Mm-hmm. parce que gis nga boo demee Chine. Mm. Mao tse mm-hmm. mooy seen idole. mooy seen idole effectivement. boo demee États-Unis. Mm-hmm. Washington. dernier Washington. te bokk ci seen idole te ñun ñëpp doomu dëkk bi lañ. Mhm. boo demee tey ji mhm. aide. bi mooy seen. idole maanaam peuple boo gis yàlla dina ci génnee doomu peuple boo xamante ne ci idéologie ak philosophie ak vision kooku peut-être que ci kooku lañuy jaar. Mhm. pour dëkk bi soxaliku. dëgg la. te kenn ku ci nekk xam nga tey ji baay boo gis bu sañoon jur doom bu ko gën. dëgg la. Hmm? dëgg la. mais vraiment Sénégal. Hmm. doom yi mu am. Hmm. doom yooyu ñoo war a liggéey ngir Sénégal soqaliku. dëgg la léegi Macky Sall. Hmm. Ousmane Sonko. ak ñi ci des ñëpp. ñoom ñëpp ay doomu Sénégal lañ. dëgg la man bu ma sañoon. comme Macky Sall dem na. na bàyyi ñëpp bokk. loolu la ñëpp wax moom. na bàyyi ñëpp bokk. na Ousmane Sonko bokk. bu bëggee xalifa Sall na bokk. Hmm. Karim Wade na bokk. Hmm. Bougane na bokk. Hmm. Abdou Karim Abdourahmane Diouf na bokk. ay Pape Djibril Fall ak Pape ñoom ñëpp Idrissa Seck ñi bëgg bokk ñëpp nañ bokk. nañ bokk. bu fekkee ni bokk bi bu ñu bu fekkee ni bokk bi bu ñëpp bokkee dafay diis ci organisation bi. mais ñu def liste unique. liste unique effectivement loolu la gars yi waxoon sax seen dialogue bi mais waa da koo bañ. waru ko bañ. koo waru ko bañ. waru ko bañ parce que. ñun ñi ñëpp faraata la. kuy doomu senegal muy xalaat fan lañu war a mën a jaar ngir senegal jëm kanam. dëgg la. léegi yow Sénégal bu nekkee bato. xam nga bato bu nekk foofu mu am capitaine. mu mais bato bu nekk day am waañ. foofu mu am cuisinier. Mhm. xam nga yow mënoo nekk bato mënoo nekk capitaine nekk cuisinier. mënta nekk kay. te bu amul cuisinier yow di nga dawal ba xiif ku lay jox nga lekk. waaw jar naa laaj de. Hmm? jar naa laaj mos. léegi ñoom état bi ñoom. Hmm. ñoom ñooy ñoom ñoo yor capitaine bi de Sénégal bu dee bato la. Hmm. ñoom ñoo yor capitaine bi. mais li ñuy dundee. ñi nekk ci kii ñi nekk ci dëkk bi ñoo koy liggéey. dëgg la. donc ñun dañu war a sóoraale quoi ñun peuple bi. dëgg la. est-ce te jàmm ci la lépp xaj. dëgg la. lu ñëpp bokk. Hmm. ku ne am na droit wax ci gis-gisam. ak dégg-déggam. dëgg la ak bëgg-bëggam. Hmm. te liggéey ngir senegal taxaw. Hmm. ba ñëpp am tawféex. kooku jihaat la. dëgg la jaamu yàlla gënu ko féete kaw. ah parce que yonent bi dana lii màndargal ak ngëm bokk na ci bëgg sam réew te sam réew boo ko bëggee da lay jaral. xam nga Serigne Touba lu mu wax. nee na boo demee ba ci jaamu yàlla. teewlu lislaam dañ ko mm. xaaj ci ñetti phase mm. sa diggante ak sa borom mm. sa diggante ak sa communauté sa diggante ak àdduna bi mm-hmm. islam communauté et monde mm-hmm. ñun bor bi ñu amal yàlla mooy lislaam buñ ko bokkaale ak kenn mm-hmm. mais communauté bi mais lu ñu am lu ne communauté bi moo ñu ko jox dëgg la école yi ko koy financé du xaalisu contribuable l'argent du contribuable kon kañ boo demee ba jàng ba mën da ngaa war a servir peuple bi peuple bi dafa soxla doomam yëpp mais Sénégal tamit ci àdduna bi la bokk. Mm. dugalante beeg jàppalante beeg àdduna bi noonu lay doxe te dañoo war a fexe ba. Mm-hmm. échange bi. Mm-hmm. am équilibre. Mm-hmm. est-ce que yaa ngi dégg wax ji. yaa ngi dégg wax. mais. Mm. bu ñu bu ñu daaw politique politicienne quoi le machiavélique quoi. moo jiital l'intérêt personnel. non. nañu fexe ba képp ko am yéene ci dëkk bi rek. mu mm. mën liggéey. Mm. li mu yéene ci dëkk bi. Mm. qu'on les met en compétition saine. Mmh. et des fois je vois que man des fois ma ne on peut pas plus sage que Dieu. déedéet on peut pas être plus mais yonent yàlla Moussa. mais rey na nit avant muy nekk yonent. lan moo mm-hmm. tax yàlla privé wu ko droit am yëpp. déedéet privé wu Sonko il a été acquitté de viol et de. menace de mort et de menace de mort par la justice. Mmh. ay corruption de la jeunesse xam nga kii boobu moom dañ nañ ko dégg depuis Socrate. waaw ah, Socrate da lañ ci jàppoon tëj ko ci ba mu faatu te est-ce xam nga Socrate lan moo taxoon ñu jàpp ko loolu accuser ko loolu. Hmm. parce que Socrate dafa waxoon dafa doon dafa doon dafa doon kii jeunesse su grec yi ne leen. Hmm. pouvoir ak sagesse bokkul. Hmm. parce que ñu bëri dañ yàq dañ doon jaawale pouvoir ak sagesse. Mhm. ba pare mu doon invité les jeunes pour ñuy xalaat. di mhm. utiliser seen xel di ko réaliser. Mhm. pour la vérité. di raisonner. moo tax Socrate mosul nangu. ñuy jàngale philosophie ci ci université yi dafa ne nit bu nammee bu bu noppee xalaat rek mala la. mala la moos. comme la. dëgg la boobu mu doon pousser les jeunes à raisonner. ba jeunes yi di commencer raisonner ci comportement yenn homme de pouvoir yi hmm. ba mu jural leen yenn opposition yoo xam les guerres injustes duñ ci engagé wu hmm. ba mu jural Grèce Grèce Grèce defet hmm. loolu nag la ñu ne euh, Socrate c'est un influenceur des jeunes daal di koy atte condamné ko corruption de la jeunesse corruption de la jeunesse te boo xoolee dafa mel ni histoire bi dafa mel ni daal mbubb yi daal lañ soppi ça se répète. ça se répète en permanence en permanence. doomu aadama naa la xamal benn <laughs> ci àdduna. Eh. doomu aadama benn la fa. doomu aadama yëpp ñoo bokk yam. passion la muy am charnel. am mm-hmm. intellect. am mm-hmm. esprit qui est le cœur. Mm-hmm. jëm bakken la. xel xol ak ruux. fépp foo dem benn science temporelle moo fi am ak science spirituelle. kenn moomu ko. il est la disposition de tout le monde. est que yaa ngi dégg wax ji. politique jaamu yàlla la. dëgg la. mais nag. fii ñu ci ëpp. dañoo nekk ay jullit. te seeni sëriñ ay nasaraan lañ gëmuñu yàlla. loolu dafa doy waar quoi. mais normalement. Hmm. bu fekkee ne yow citoyen bi. Hmm. dangaa juddu. Hmm. par l'argent du contribuable ñu la ciy fayal école. di la ci jàngal. ba nga génn am diplôme. ba commencé servir yow dëkk bi. a ah, su boobaa da nga war a delloo njukkal dëkk bi. foofu laa bëggoon wax ju duggaat sax parce que. comprendre nga. dugal nga mooy li nga junjoon sànk ci jël benn wax ji rek la sëñ Abdoulaye waxoon Senghor. très bien na ko yow. loo loo loo la peuple bi sant benn war nga leen koo sant fukk wala téeméer. est-ce xam nga Macky Sall bon président yi fi jaar yëpp Macky Sall ñaata la am fond de fond caisse caisse muy fond de fond lañ koy tuddee xaw ma fond de. waaw mooy seen caisse noire yooyu rek. huit milliards par année. Hmm? sur l'argent du contribuable. Sénégal amul xaalis boobu. Hmm. te du moom rek ah Ablaye Wade moom daf ko doon am premier ministre am daf ko doon am. te fii amul benn hôpital boo fiy dugg hôpital yëpp am am am tous les matériels qu'il faut am rajo am scanner am. tu vois tous les matériels rek boo bëggee dialyse yooyu noonu. ak yeneen yeeg yeneen. les cancérigènes. Mhm. amul benn hôpital bu ci am tous les matériels complets. Mhm. te amul benn hôpital boo fiy dugg au cas d'urgence ñu faj la ba nga wér te fayuloo wala jënd amuloo loo jëndee ay. mais nag li ci gën a doy waar sax da ngay xool suñuy dirigeant rek amu ci kenn koo xamante ne dina foo war dem dugg suñu hôpital yi faju dañuy dagg bi yaa ngi dégg wax ji Sénégal xam nga ci kan la neex hmm. ki am wér-gu-yaram hmm. dépense am doy hmm. te dara dalu ko mais fii ko am xaalis sax doo faju te li ma la ci wax xam naa ci dara parce que durant trois ans yi ma def Sénégal def naa tous les hôpitaux suma jabar faatu na fi ma jarbaat faatu na fi suma nijaay faatu na ci te kenn ku ci nekk maa la doon ci gis naa li xew ko mhm. et c'est désolant mhm. te boo jëlee kaawu covid bi rek mhm. gis nga notre ministre euh, premier ministre lu mu wax ci détournement fonds de covid yi bu ne lan li ñu détourné six milliards rek la ci <laughs> xaalisu contribuable bi donc en quelque sorte il faut ko ñu ñu ñu ñu ñu sanifier ñu sanifier ñu ñu ñu sellal ñu sellal ñu sellal bagage yi quoi. ah en tout daal moom xam naa ne fi mu moom kéemaane na lool mais nag euh, xam naa ni moom. débat yi moom dañuy def saa rek am ñu ci mën a. je pense que daal fi mu toll nii man li ma yor laa la wax fi mu toll nii Macky Sall dalal na xeli à moitié. waaw à moitié. à moitié dalal na xel yi à moitié. à moitié man su ma gisee gars yi di ko féliciter daf may jaaxal. totalement bi nag mooy bu fekkee ne vraiment. dañ dawal yërmande ñëpp bokk quoi. waaw ñëpp bokk les élections inclusives. waaye bu ko defee ñu mën a parce que ñun vraiment dañ bëgg liggéey ah. effectivement lu leer. <laughs> dañ bëgg liggéeyal Sénégal quoi te dañu soxla dëkk bi am dal quoi. jëriñ ana looy tàggoo gars yi tàggatoo gudul tàggatoo nag nga xam naa ni. amee ah, jotaay moom tàmbali gudul jeex. sant yàlla. Mhm. di la sant tamit. Mhm. di ñaan yàlla senegal def fi yàlla def fi taw amiin Fall ak comme li ma yàgg ñaanal Macky Sall rek. mooy mooy capitaine bu bato mhm. dafa war a am wér. Mhm. am jàmm. Mhm. am tal. am xel bu dal yéene ñëpp jàmm. <laughs> yërëm ñëpp nag. yàlla dafa ne ci alxuraan. bu la nit tooñee. am nga droit fayu. mais nag fayul kii mu la tooñ. mais. Hmm. jéggale moo gën ci boo xamoon. Hmm. fayu c'est la justice. Hmm. mais le pardon est noble. dëgg la. nañu yàlla dolli sutura ñaanal euh, dëkk bi ñaanal kilifa dëkk bi yëpp. kilifa saayir ak kilifa baatini. ndeysaan. kilifa diine yi kilifa ñëpp. Mm-hmm. diaspora bi. Mm-hmm. ñaanal leen yàlla parce que nañ leen xalaat bu wér parce que xam nga niñ naan picc ngi ci kaw mais xel maa ngi ci suuf maa ci suuf effectivement. vraiment immigration dafa metti quoi. dafa metti effectivement. te nekk bitim réew. parce que mm. Sénégal li tax tàkkul comme yeneen dëkk yi. Mm. mooy famille boo fi gis am na benn immigré bu nekk ci bitim réew di ko def soutien familial. dëgg la di supporter diisaayu ceeb bu seer diwlin bu seer courant mm. bu seer ndox mu seer. Mm-hmm. comprendre nga immigré yi fële dundatuñu. Mhm. ñu ngi sacrifier seen vie pour seen njaboot fii. Mhm. te vraiment. Mhm. Euh, Sénégal bu jaaree fi mu war a jaar. ñi ñi génn ñëpp mën nañ ñibbisi. parce que barki démb ba ma demee Dubaï. ñu doon ay jullit. dëkk bi développé lool. j'ai que mais c'est possible. <laughs> c'est possible. te ville attractive la boo xam ne ñoom ñoo ko créé c'est possible quoi ay jullit lañ hmm. te defar nañ seen dëkk ba yéeféeri bi ñu fa ñëwee dañ leen di naw dañuy yaru hmm. te xel rek lañ yor dañu am fulla fayda rek hmm, fulla fayda gëm seen bopp da koy xool ci Allemagne rek bi ñu fa bëggee indi seen kiiw LGBT yi dañoo dañoo bañ parce que yaa ngi dégg wax ji da ngay gëm sa bopp quoi bëgg sa bopp ko <laughs> yaakaar sa bopp ko dëgg la ba pare am Pastef résistance <laughs> <laughs> comprendre <laughs> baat bi gars yi bañ a dégg. ah <laughs> ma ne baat bi gars yi bañ a dégg non yoonu Mouride moom ah. non non baatu résistance bi ñu bañ a ah, dégg laa d'accord xam nga xam euh, euh, kan moo woyoon woy boobu Omar Pène. Eh. Pastef mooy bëggante. bëggante mooy dimbalante xaw ma. bëggante mooy dimbalante. waaw ah, leer waaw ah, gars yi wax nañ lépp de ma ne ko gars yi wax nañ lépp les beaux parleurs wax nañ lépp. est-ce que yaa ngi est les hommes passent. Mm -hmm. les institutions demeurent. demeurent effectivement. et le Sénégal demeure aussi quoi. akasaa jëriñ. <laughs> te lépp ci nettali lay mujj quoi. Mhm. nañu rafetal ko <coughs> ndax nettali ma rafet dëgg la. mooy yoon quoi. dëgg la est-ce que jëriñ. ñoo ngi siyaar bu wér tey sant tey gërëm. yal na yàlla nangu siyaar yëpp jëriñ ak am na solo de macha allah <laughs> jaajëfati nag ñu topp jotaay bi di ko rafetlu loola ah. ak sa wax dëgg yàlla sant yàlla ooy damay ni Cheikh moom moom moom moom moo ne ci bopp commentateur yi ndax moom ñaare buñ tàmbalee émission rek day dugg commenté ak sa ñaanal góor yàlla yëpp Cheikh Ibra Diouf ndeysaan jàmbaar la jiili tamit mu ngi mu ngi mu ngi doon teelu ak sa Ousmane Nguer Matar Faye Khadim Mbeng Ñang Cheikh Ibrahima Sonko 2024 Bamba Mbacke <laughs> Fallou Wilane Njambe TV. Mhm. Alioune Thiam Baara Kanji Sow Ibu Alioune Thiam. Mhm. liñ ku lim Dioum Mouhamed bëgg Serigne Touba kooku sama mbokk taalibe la Sali Euh, Madiama mbay mooy PDG wu barab bi mooy it mu ngi doon teel ah ak ça ñu ngi koy nuyu bu baax Madiama Mbaye wax war nañ jotaayoo ak moom nag <laughs> waaw waaw mu lay dégg mu ngi lay dégg wax nañu ko <laughs> mu ngi yónnee jaajëfam ah, <laughs> Madiama jotaayoo ak moom ah, bu euh, ñu gën a xool liggéey bi nu mu gën a saawoon baawaan ak ah, ça lay dégg ak ça mu ngi lay dégg wër euh, moom it mu ngi rafetlu jotaay liggéeyu liggéeyu Serigne Touba bi maanaam nuñ ko gën a mën a universaliser mm-hmm. parce que jot nañu tas ci àdduna bi la philosophie de Cheikh Ahmadou Bamba. xaadim rasool xaadim rasool sax que safar gee ngi ñëw. est-ce que yaa ngi dégg wax ji mm-hmm. donc euh, la mm-hmm. vision de Cheikh Ahmadou Bamba. jusqu'à mm-hmm. présent xam nga la fois passée sëñ Mouhamadul Mourtada. xalif général mi ngi wax ni tuubaa dafa war a dem ba mel ni Vatican ba ca Rome. ma chaque fois dama doon wax ni Mouride. fa Bamba joxoñ jamaguñu ko. dëgg la. Mouride fa Bamba joxoñ jamaguñu ko. parce que boo demee Vatican ba. Vatican bi dañu seen banque. Hmm. am seen université. Hmm. am seeni hôpital. Hmm. am seeni immeuble. am seen rajo am seen télévision. am seeni école seeni lycée. di former seeni prêtre ak seeni sœur. am autonomie. ba pare fexe ba dund ñiy dund ci cité bi am mm-hmm. jàppandal mm-hmm. te Touba am nañ moyen yooyu mm-hmm. mais malheureusement on investit beaucoup sur les sur les sur les matériels mais investir c'est investir guñu sur les êtres humains yiy dund ci biir Touba pour seen dund am jàppandal damay wax ni Dakar bu ñu jaayee kilo ceeb quatre cent Touba war nañ ko fa mën a jaayee deux sants boo feebaree Sénégal bu ñu la fajul boo demee Touba ñu faj la gratuit te doo fay parce que murid yi am nañ puissance économique. te pourtant nag ci yoon woowu lañ nekk yàlla bu ko dara dog. ayca bisimilah te boo demee foofu Baye Fall yi ñoom dañuy parce que xamante ñoom ay Baye Fall yoo xamante ne ay njaxas lañ sol. Mm-hmm. mais dañ leen tuddee les soldats de la paix. Mm-hmm. du ñu yor arme. Mm-hmm. dañ leen formaliser. ñoo yor sécurité Vatican bi. mu am ay grade am ay kii loolu yëpp. ay exemple la. exemple la kon sëñ bi maanaam lu narta am sëñ bi du ko wax. est que yaa ngi dégg wax ji. Euh, sëñ bi lépp lu mu dem bu junj rek. c'est ah. parce que loolu lu dara réalisé wu la. yaa ngi dégg wax ji. Euh, donc ba may gis ne buy joxoñ foofu. Mhm. c'est pas nit ñi ni ñu koy interpréter Touba am indépendance mu mel ni dëkk ci biir dëkk du loolu de. Mhm. non c'est pour que Touba. Mhm. am benn statut spécial quoi statut spécial bi mooy. ñu mën a. liggéey pour développement infrastructurel bi te ñu ngi ci depuis. ñu ngi ci boo xoolee Touba jëm ca kanam la. mais développe développement de la qualité de vie humaine tamit dañ ko ci war a boole. te lépp ça la qualité de vie humaine parce que tabax benn nit. Mm. mettre ko à l'aise mm. moo gën tabax junni jàkk. effectivement. <laughs> ak kasaay jëwriñ xam daal di boobu maanaam liñ naan xaw ma waaxub gileem xejul ci pantere naa moom bu ñu toppee jotaay bi boobu moytul eh, directeur programme bi sëñ Abdou dina wax ak man ndax chaque fois dañuy lekk ci timing bi eh, parce que waxtaan wi nit ñee koy ittewoo et Cheikh Fall c'est le symbole du développement temporel foofu yëpp dañ fay dugg parce que sànq jotuñu faa yegg ci biir waxtaan mooy référence bi non yooyu dañ ci yooyu yëpp dinañ ci dugg parce que eh, lii tàmbali la rek Cheikh Ibra kenn mënu koo dajal kenn mënu ko dajal ndax boo xoolee ñaari buntu rek lañ ci ubbi est-ce que yaa ngi maa ngi ne woon dinañ dugg ci aboori jaalullaahi dugg ci sa méthode mhm. tarbiyaam ak yooyu noonu mais dooc ñu cee yegg léegi nag yooyu dañu nekk ay buntu yoo xam ne dañ koy denc ngir jëmmi jamono suñ ñëwee dugaat ci buntu yooyu toj ko leeral ko lislaam comme projet de développement effectivement yooyu yëpp dañ ci dugg maa ngi euh, profité aussi euh, mhm. très bientôt dinaa lancer suma mouvement bi yeeslu mhm. ñu ngi koy liggéey dafay liggéey sur développement culturel économique ak social loolu gaa nañ ko soxla waaw incha rabbi yooyu yëpp dina ñëw bu soobee yàlla bu ko defee jëriñ waaw naa ni moom euh, <laughs> damay jottali yenn siyaar yu mënta ñàkk rek ndax jotaay bi dafa may ay góor yàlla yu bari yoo xamante ne ndeysaan dañu koy teelu te lañ naan ku lim juum te xam naa ma tiimee ñi fi nekk ñëpp mënu ma leen a tudd mm-hmm. waaye nag euh, di jiitalaat ci siyaar bi suñu wasila sëñ Abdou Samane Mbacke di ko ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak mm-hmm. ndax lu ñu xam wala ñu mën ko wala ñu mën a toog ci barab bii di ko fi leeral jëmmoo ma tax ndax moo ñu yar tarbiyaw tarbiya ñu lépp lu ñu xam itam ci sëñ ba ci nab na bi wala ñu xam dara suñu borom moom moo ñu ci gindi teg ñu ci yoon wi kon ñu ngi koy sant sant woo xamante ne am nag tàmbali waaye amul fu mu yem mhm. di la sant nag yow jëwriñ ci sa disponibilité mhm. ndax saa su ne moom euh, buñ la yittewoo wax dëgg yàlla da ngay dog lépp ñëw ànd ak ñun ci jotaay bi mhm. ubbeeku euh, nangoo partagé aussi loolu euh, dañ koy seere ci kanamu mbooloo bi yëpp ndax naa bi nixmata rabbika fa xaddis nit buñ la jiyee teranga da nga koy wax te teraanga dafa bëri façon du nit ki yëkkati alal rek moo la teral mais nit ki nangoo ñëw partagé ak yow ay idée ba doomu aadama yi di jëriñu ci sa plateau loolu yaakaar naa dara féetewu ko kaw ndax jotaay bi ku ci dégg dara lu la jëriñ rek loolu ñun dañ koy sante yàlla waaw ah, kon nag bu ko defee loolu jëwriñ mu la koy seeral mhm. ah, di la wax ne tamit mbokk taalibe wax dëgg yàlla dañuy rafetlu waxtaan yi bu baax a baax a baax a baax waaye di charé mbooleem waa kër gi yëpp su ma tuddee ku ci mel ni sëñ ma jama mbay mi ne ci bopp bi nga xamante ne maa ngi koy gis ci commentaire yi kon moom mu ngi koy charé bu baax a euh, di rafetlu tam xalaatam ak doxalinam tamit ci liggéey bi ndax wax dëgg yàlla euh, luy sukkali liggéey bi yitteem defe naa loolu la te du jóg ci duñu soññ ci ñu gën a góorgóorlu ci liggéey bi nu mu gën a yaatoo kon nag bu ko defee loolu ñu ngi koy seere suñu jëwriñ sëñ Abdou mi ne ci barab bi sëñ Abdou Diorn muy directeur programme bi moom it ñu ngi koy siyaare bu baax a baax a baax ndax euh, wax dëgg yàlla moom it. na euh, nga koy siyaare bu wér bu moom tamit bu baax waaw ndax moom <laughs> lay bàyyi moom xam naa ne après di ngeen kii. <laughs> waaw incha allah ak soxna Bintu ndeysaan soxna Bintu moom it mooy directrice su bërëb bi. soxna Bintu Mbaye moom it ndeysaan di ko baax ko woyof ndeysaan ñoom ndeysaan ñoom ñoom ñëpp di ngeen gisante bu soobee yàlla. ak sa ndax yow moom bokk nga ci kër gi yow moom kër gi sa kër la <laughs> léegi moom la sa mu ngi doon incha euh, bi gën a day gën a yaatu sax day gën a yaatu bu soobee yàlla loolu moom gars a nañ ci taxaw bu soobee yàlla mm, mm, mm, waaw Mamour Mamour moom it gis nga moo yor wàllu technique beeg yooyu yëpp moom it ndeysaan borom Pastef mooy defar affiche yeeg yëpp non borom Pastef moom ndeysaan du ko ñuy seereel sax waaye mooy loolu liggéey bee ngi noonu yenn saa yenn yi ngay gis mu koy dagg noonu di ko dugal di ñuy di ko teelu lépp liggéeyam la quoi kon loolu tam ñu ngi koy rafetlu vraiment sant yàlla euh, loolu itam yitteel ak passif kon bu ko mbokk taalibe yi nga xamante ne tam dañuy teelu jotaay bi li ñuy wax ku lim juum wala doo matal du mën a tudd ñëpp mhm. waaye su ma tuddee ku mel ni jëwriñ Aline Medina mhm. tudd ku ci mel ni ñoom Zo sa gars yi féetee Medina fële ay ñoom Alioune ak ñoom jëwriñ Aline ñoom Zo ak ñoom Ousmane ay Omar Tako sax booy waale suma daara Maslakul Xuda Maslakul Xuda effectivement ni waale sunu sang Cheikh Moussa Touré Cheikh Moussa Touré général sëñ Aliou Cissé sëñ Aliou Cissé waaw sama famille mhm. a Medina sama frère yeeg waa diaspora yëpp suma soxna ñu ngi ñoom ñëpp kenn ku ci mhm. nekk rek mhm. saa su ne euh, ñu ngi partager toujours euh, les mêmes dimensions ndeysaan macha allah parce émission moo wax yombul ndeysaan yow waxee ba pare rek dangay toog di teewlu ba xam ndax. Mm. Euh, maanaam li nga wax tegu na wala teguwul. ndeysaan eh, ñaan yàlla rek mu suturaal ñu daal. ak ah, ah, moom lépp jub na macha allah. jot allah. surtout nag ngay wax ci ñoo xamante ni. Mm. c'est des hommes parfaits. Mm. <laughs> ay insaanul ah. kaamil lañ. waaw loolu la te ñun moom moo lay imparfait. loolu la ñuy tubaab di les prototypes. waaw ah, dina xaw a yéeme xanaa hmm? ñoom ñu roof ci ndimbal rek. waaw yaa ngi ndimbal rek kàddu moo tax euh, saa su ne nii. Hmm. li sëñ Saliou Sow doon wax nañ naan la waxal ci nit dafay mel ni da ngay yër ndabam di ci wax. te koo hmm. sutul xamoo lu mu yanu. barke sëñ wax ci moom dafa yombul quoi. daa yombut mais ndimbal rek. te <laughs> sant yàlla quoi. <laughs> ndimbal la. di ziar sunu sang ñambe daaru Cheikh Moussa Cissé bi ñu permettre. ñu mën a xam tuuti am am perception bu tuuti ci Cheikh Ibra. parce man damay faral di wax naan. Cheikh Ibra moo ñu woon sëriñ Touba. Mhm. waaw ñun kan moo ñuy woon Cheikh Ibra. tey c'est question. te bu ñu amee li ñu am ci Cheikh Ibra. Hmm. ñàmbe daaru moo tax. Mhm. ndax ay borom xam-xam ba ñu ñëwee di wax Baye Fall yi seen ñàkk julleeg seen ñàkk woor daf leen ne bu leen ci sori. Hmm. ñu ne ko sëñ bi ndax doo julli mu ne duma ma sëlmal. moom moo ñu ne donc ak kasaayegoon kon daal mu ngoog eh, ah. kon bu ko defee ah. wa axiru daxwaana an alhamdulillahi rabbil alamin mm-hmm. barke borom Touba dooley maam Cheikh Ibrahima Fall. faal ngi siyaare kulluhum rek. képp ku ñu limul rek nañ xam ni waxtu bee ñu jat waaye bu ñu ñëkkaatee yeneen jotaay incha allah rabbi daañ tudd ñu bari bu ko defee ñuy siyaare noonu rek. ndax ku lim doo matale. kon nag jëwriñ da sànni ñaan rek. parce que ah, ñaan gi koj mën na. waaw dooral ah. kun ngi rek mu ñëw. Ah, ci kaw si kanam rek. Serigne Touba Cheikh Fall barke Cheikh Moussa. mën na xewal jaajëf xam laa ilaaha illallah laa ilaaha illallah faal laa ilaaha illallah laa ilaaha illallah wa bi muhammadin rasuulillah صلواتلاه ثم عليهم ليحبيمانا خطاب الإسلام والإحسان بحرمة الصديق والفاروق يدلي بالإخلاص والتوفيق الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سدد لساني نوير جناني صفي أماني وزد برائي fas yéene dikk ak yéen fii ci Bichri TV di fi def ay jotaay yoo xamante ne jotaayu xam-xam lay doon di émission bu am solo boo xamante ne ñu ngi koy waajal fas koo yéenee tàmbali muy am talaata bu jot fii ci Bichri TV. à partir de vingt et une heures jàpp vingt deux heures ngeen fas cee yéene ànd ak nag seen mbokk taal di Yaxya ñu fas cee yéene def nag ay jotaayu waxtaan yu am solo ndax ku ne pencum xam-xam wax nga lépp ku ne xam-xam wax nga Serigne Touba wax nga maam Cheikh Raw Fall waaye ñu fas yéene dikk itam def ci ay yaatal ay jotaay yu am solo. ci njàngaleeg Cheikhul Khadim rawatina njàngaleek maam Cheikh Ibrahima Fall jotaay bi nag bu ko kenn wuute ndax ku ne xam-xam wax nga yoonu murit kon nag bu ko defee ñun ñëpp ñu ànd waajandoo ko muy am fii ci Bichri TV ngeen ànd ceeg seen mbokku taalibe Yaxya mu sëñ Abdou Samad